salaamaaleykum mbokk auditeurs si FM yi ñu leen di gërëm bu baax baax seen waaye si waxtaan bi nga xam ni tey jii fas yéene nañ ko def muy waxtaan bu am solo te mu jublu si li nga xam ni jamono yi nu nekk euh, moo am sa gox ba nga xam ni moom ñu neex puut euh, la fa am nag kooku ñëpp xam nañ ko muy ganaar yuy dee si wàllu nasaraan sànn tudde ko li nga xam ni mooy grippe aviaire loolu nekk loo xam ni sax jamono ay bu 2005 amoon na fi. waaye bi mu fi mujjee am sax yàggul trop waaye amul doole ba mu amoon euh, ay 2005 ndax bi fi mujjee am lu tolloog ñaari at rek euh, gisaatoon nan ko fii feeñaatoon fii nga xam ne moom mooy Sénégal euh, léegi nag nuy indi bëgg si indi waxtaan ndax nekk na jàngoro boo xam ne tam jàngoro bu garaaw la parce que li muy faat bari na trop tey ji sax ñoo ngi wàññi ba loo xam ni mi ngi jege téeméeri junne ganaar yoo xam nii Euh, maanaam mujj na leen euh, faat ngir daal fexe rek ba dogale lii nga xam ne mooy jàngoro boobu nga xam ne tam moom li muy lawee dafa doy waar parce que du xase ba génn fenn rek la nga xam ne moo nekk sa gox yooyu yëpp du ganaar rek waaye fa mu génn nekk génneek poulailler rak yëpp dañuy mujj daal di leen taal suul leen ngir daal fexe jàngoro ji ba duñ dem tey ji nag pour dugg si waxtaan woowu ki nga xam ni moom nañu moo ñooy suñu gan Euh, kenn kii mu ngi tudd docteur euh, Amadou Gueye moom di expert avicole ba pare tam muy euh, coordonnateur comité technique bu interprofession avicole suñu beneen di vétérinaire également suñu beneen invité bi koy moom Makhtar Diouf Makhtar Diouf nag moom mooy njiitu centre avicole bu Mbao ñoo ñooñu ne ñu fas yéene seq ak waxtaan wi ma bàyyi leen ngeen nuyoo ak gars Sud FM yeeg mbokk auditeurs yi docteur Amadou yi Euh, maa ngi lay nuyu Makhtar maa ngi nuyu seen auditeurs yi di nuyu sénégalais yi yëpp. waaw loolu dugal wese euh, Makhtar euh, Diouf yow def naa doo gan si kër gi. jërëjëf Thomas man Makhtar Diouf docteur vétérinaire la donc liggéey ministère de l'élevage directeur centre national agriculture bu Mbao. jërëjëf mbokk auditeurs yi donc nu fas yéene ubbi waxtaan wi waaye puisque nag moom dañu nekk si Covid bi li nga xam ne moom lañ daan def ngeen di mën di dugg si émission bi yéen itam ngeen di joxe seen xalaat loolu dana nekk loo xam ne moom jamono yi dañuy ñaan yëf yi yem fi rek ndax loolu jamono yi moom dootul mën a am. donc nu ubbi waxtaan yi fas yéene tàmbale ak euh, ki nga xam ni moom mooy Makhtar Diouf euh, Makhtar Diouf gis dégg nga li nga xam ni tey jii moom moo nekk ci Sénégal mooy jàngoro bi nga xam ni moom mooy fàtt euh, ganaar yi waxoon naa ko léegi yow yaa am centre avicole de Mbao jàngoro boobu tey ji ban jàngat nga si am ak yéen itam si ay ganaar ngeen nekk nekk la mbir yi demee si si yéen itam sa Mbao. feebar bi bu ñu koy am Sénégal feebar bi nag yàgg nañ ko gis ci àdduna bi mais c'est la première fois muy am Sénégal am na beneen xeetu grippe aviaire muy muy influenza aviaire faiblement pathogène à H5N2 boobu moom na fi mais ute bii. H5N1 bii mos fi am bon. déedéet H5N1 am. mais ma boobu xaw ma 2005 2000 kii itam boobu moom moo fi mu c'est la première fois bu ñëw Sénégal. ah bon première fois ñu koy Sénégal. 2005 nag jooju dafa fekk mu bëri ci àdduna bi bëri trop trop trop sax ci la ñu jëloon yenn mesures yi pour éviter feebar bi dugg fi. ba pare tëj gannaaw bi voilà mais bii moom mu fi soog c'est la première fois muy am Sénégal léegi ni mu demee mais lan moo ko différencier d'abord ak ba nga xam ne moo amoon euh, ay 2005. ah benn bi la mais mosuñu Sénégal feebar mosuñu ko am c'est la première fois c'est la am Sénégal waaw dégg naa nag gars yi di wax ne mais c'est la am c'est la première c'est boobu nga xam ne moom la ñu tëjul 2005 kooku jotul woon dugg. bañ mu dugg fi ma doon ñu tëj ndax dañ gis ci àdduna yi mu ne ay millions millions ginaar. bon daal muccoon si bu baax a baax. muccoon nañ si ba léegi. waaw bii bii mu dugg. waaw léegi nag xam nga kooku bi wax nu mu demee waaw ñu daal seetlu nañ ne euh, gis euh, ci benn tool ci benn poulailler bi nekk fële ci ginnaaw pour seetlu nañ ne daal dafa am ay ganaar fi dee gars xool xool affaire bi jaaxal nañ ndegam fii am nañ laboratoire ak serviteurs yu xarañ ci lu ñu dem jëlee échantillon yóbbu ko laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire ñu daal di xool def test bi ñu testé NH n 1 euh, euh, bi la waaw donc euh, gis nañ ne ci cent mille ginaar yi cinquante ganaar bay na ko muy fukki ñu fukki fukki junni. juróom fukki junni. ak juróom-ñett. ak juróom-ñetti téeméer. noonu ak juróom-ñetti junni. ak juróom-ñetti junni voilà. la la rek donc bi ñu gisee ne loolu la léegi dafa am état bi ñu tuddee APD euh, arrêté portant déclaration d'infection arrêté boobu nag euh, mooy permettre euh, yeneen service yëpp ñëw jël relais ndaxte feebar la boo xam ne déclaration obligatoire la te su ko see ba am rek dañu bañ mu law donc nag yeneen quarante deux ganaar yi fa desoon. ci lañ ko daal di def dañuy tuddee amoon avantage sanitaire ndaxte suñu bàyyee woon noonu rek feebar mën na law génn foofu am law bu ci dëkk bi donc tout suite bi ñu gisee foyer bi rek daal di dangay leen ah dañ leen abat na technique nag bu bi leen abattre daal di gas def suuvir nag suuf aliment bi fa desoon daal di ko waaw docteur Amadou Gueye li ma la bëgg laaj euh, bi yoon lan moo tax ba feer bi dugg si alors que 2005 vraiment nga xam ne kooku dafa touché woon àddina bi yëpp ba ay dëkk yi nekkoon fii ay Nigéria ak sax ay Burkina yéen dëkk yu ñu jege affaire bi laaloon leen bu baax baax nu muccoon si mais cette fois-ci affaire bi lan moo tax ba laal nu ñun. waaw euh, bala maa agsi si affaire bi lu tax mu laal ñu ak. Euh, te lu tax bee laalul woon. voilà. Euh, dama bëgg a confirmer li docteur Matar Diour wax xam nga 2005 ci lañu ñu doog a dégg ci àdduna bi grippe aviaire siiw même bu fekkee ni amoon na avant bi mu feeñee même bu fekkee sori na Sénégal xam nga mën na nekk Chine mën na nekk Asie du Sud-Est Asie du Sud-Ouest euh, loolu bi mu amee comme ñun dañuy yëngatu ci santé publique dafay nekk danger pour Sénégal parce que santé publique moo ñu obligé. fu feebar am ci àdduna bi nga xam ni mën na dugg ci réew mi dañu ko war a préparer loolu moo tax 2005 lañ commencé woon préparer former ñi ñu war a former bind li ñu war a bind préparer mën naa wax ni de 2005 jusqu'à 2010 juróomi at yooyu yépp dañ ko passé si préparer wu ñu ne ah H5N1 kat grippe aviaire bu mecc bu soxor boobu duggagul Sénégal waaye mën na fee dugg. ñëw na ba jege ñu sax parce que bu ñëwee Côte d'Ivoire dem Burkina dem Niger jigéen nañu mais ñu ne comme mën na fi dugg nañu préparer tàggat ñi yëngatu wàllu wér-gu-yaram tàggat aviculteurs yi tàggat ñépp ñi nga xam ne bis bu amee dina leen laal wala bis bu amee ñoom ñoo war a yëngatu ci lu fi jële feebar léegi nag bi ñu defee loolu 2005 euh, ba léegi yàlla dimbali nañu ci kàttanu yàlla waaye tamit service yi ñoom Maxtaar Juuf jiite dañu taxaw ak seeni matuwaay taxaw ak seeni jumtuwaay fexe ba fépp fee a jaar ñu tëj ko donc dégg nga 2005 ne tere nañu bépp ginaar buy dund nga importé ko mu jóge étranger tere nañu yàpp ginaar loolu moo ko waraloon yàlla dimbalu nañ ci de boobu ba léegi euh, ñu muccoon waaye nag xam nga feebar moom mënoo waat ni du fi dugg loo taxaw taxaw loo indi say matuwaay loo xarañ xarañ lu say technicien xarañ xarañ feebar mën a dugg te ñun xamoon nañ loolu le risque zéro n'existe pas loolu moo tax nag ñu jékki-jékki fan yii ngeen dégg ne gis nañ ko ca Pout mais lu tax ñu gis ko parce que dañu taxaw xam ni feebar bi mu ngi ci àdduna mën na fi dugg donc fu mu laal ñu ne ah mën na nekk beneen feebar mais mën na nekk tamit grippe aviaire su ko defee est-ce que relâchement amul ba tax loolu daal di fi dugg. yaakaaruma ko. dafa di. mesures yi daan teg bu njëkk ba tout ça mi nekk en vigueur et mm. renforcement. yaakaaruma ko xam nga euh, sëñ Maxtaar euh, mbirum wér-gu-yaram moo demee noonu wér-gu-yaram feebar boo ko déggee fenn ak loo aar aar sa bopp du ñàkk mën na fa dugg parce que ngelaw kenn mënu ko téye kii boo defee mesure sanitaire frontière identifié nga mën a. xool frontières yi nga xam ni c'est pas contrôlé mënoo ko xool ci gàttal euh, comme ni ko docteur Makhtar Diouf waxee farata la ñu xool fan la jaar ba dugg xam nga feebar bu feeñee dafa am li ñuy wax mesure conservatoire lan la ñu war a def léegi léegi pour tëj feebar bi foofu laa bëgg ñëw. waaw léegi daan daan ñëw si loolu mais avant loolu dama la bëgg poser beneen question euh, bi ñoo ngi nii. Euh, h n moo génnoon bi loo ko tuddee H lan moom la ba tey donc ça n'a nature bi changé wul waaw mais lan moo waral ba tey jii di nu xam du virus la non. virus la waaw. waaw lan moo tax ba tey jii moom deful ay mutation indi ay variation toujours resté intact comme avant. yàlla nañu yàlla musal ci mutation boobu. loolu moo tax ñu bëgg virus bi génnaat fi léegi léegi balaa mutation di am parce que virus nag moo ànd ak loolu xam mutation moom virus surtout virus à maanaam ci seen dund la bokk ay mitation donc xam nga nu ñu war a def su virus bi génnee ñu gaaw mu génn fi bu duggee ñu gaaw mu génn fi balaa mutation euh, looloo tax service yi taxaw temm ba mu amee xam nga téeméeri junni ginaar rey ko lu difficile la lu metti la il a fallu ko état ministère préfet ñu mobiliser gendarmerie mobiliser sapeur pompier service vétérinaire ñépp ñi nga xam ni war nañ ci yëngatu xamul lan lañ bëgg virus bi am foofu parce que bu ñu bàyyee mu génn foofu mutation mën na am ko mën na bañ am parce que probabilité la mais mën na am mais ñun li ñu bëgg mutation bañ am parce que virus moom à ARN boo bàyyee mu yàgg fenn rek dafay indi mutation te bu mën na dem sax ba euh, nga mu changé tuuti mais li wóor mooy service yi comme ni ko docteur Makhtar Diouf waxee préparé wu nañ ci lépp xam nañ ni bu fi duggee bu yàggee tuuti mutation mën na am waaye li gën mooy. ñu fexe ba Sénégal grippe aviaire bañ a fi am parce que mosu fi am dafay doog a feeñ ñu taxaw ci nag pour mu bañ a am loolu mooy situation actuellement donc euh, ñu peut-être ma déglu beneen question pour bañ a anticiper ces questions. balaa bàyyi ma ñëw si euh, docteur également Makhtar Diouf Makhtar Diouf du ma dellusiwaatee si yow euh, li nga xam ni moom mooy wàllu grippe bi gis nañu amoon na. si ay dëkk yi nga xam ne jege nañu trop muy ay Niger Burkina Nigeria et cetera est-ce que actuellement c'est le wala Sénégal rek nañu ko euh, euh, euh, hmm. ko gën a dégg mooy Europe. laa gën France actuellement waaw France yooyu ay Lituanie Belgique dëkk yu bëri dégg naa ko dafa am euh, une forte connotation saisonnière waaw donc surtout période bi nga xam ci la set ci lay gën a génn ci lay kaay bi a bëri loolu lu ñu lu ñu sànni loolu tamit côté boobu mais dama woon juste un peu wax affaire bi nga doon laajte sama xam relâchement amul lan moo tax parce que d' abord dafa am benn ser dafa am benn système boo xam ne mooy mooy système bu ñu au niveau de la direction des services vétérinaires muy surveiller maladie yi du malay du ganaar feebaru xar feebaru feebar boo xam ne dafa benn système boo ay relais ak relais privé yi ak service de l'État yi pour grippe aviaire yi am ay mission yu dem ci site ornithologique ñu xool mais fi picc yi jël yenn dëkk fi mu nekk nii balaa ngaa du ko dara aéroport danañ na laaj fi ne yow soo bëggee importer ay œuf à couver mais œuf à couver mën nga ko importer ak reproducteur mhm. di des mënoo ko importer di nga ñëw def demande sa vétérinaire waxuñu fan nga bëgg a jëlee ñoo ko tax dëkk boo amul vétérinaire laaj na ay kii du dëkk yooyu ba mu leer laaj nga soo ko indi soo ko autorisé nga indi ko suñu aéroport day am dañu xool documentation bi nga yónnee yépp xool est-ce que normal na aéroport am service kii am service su euh, kii euh, ay vétérinaire donc pour pour dire relation amul yenn saa yi sax nga gis ñu jaar ci gaal fee di génne ay di jéem a indi ay cuisse ñooñu doon dañ leen di jàpp. donc c'est pour dire que relâchement bi nekkul fi mais comme ko Dóor Gueye moo tax ñun ñu dafa benn plan d'intervention ñëpp frontière bi Mali bi pour def simulation simulation mooy lan ñuy xool est-ce que grippe na benn boo xam ne dafa nekk na boo xam ne 2018 lañ ko defar et puis bind nañ saa yu fi mu nekk nii ñun dañu pare pour bu bu grippe aviaire duggee Sénégal ñu song donc relâchement amul fi mu ne ñëw na. loolu moo tax bi mu egsee nag tout de suite en moins d'une semaine ñu circonscrire euh, foyer bi def li war def affaire yi lenn c'est la première fois ngeen entre en lutte. est-ce que maîtriser ngeen bon defoon ngeen ay simulation mais est-ce que maîtriser ngeen paramètres yëpp avec tout euh, la logistique qu'il faut pour que oui. puisque léegi vous êtes dans la pratique ngeen mën a euh, kii.

première chose est ce que foyer bi ak nii am na lu foo jógee wàll keneen donc li ñu njëkk a def mooy bi ñu circonscrire foyer bi ñu commencé enquête fa nekk ñu waaw mais tamit y a la surveillance qui qui qui qui est là tout le temps toujours laboratoire dañuy recevoir ay échantillons tout le temps am na yeneen recherche yu bëri yu gars yi jël xool même nit ñi nga xam ne dañuy liggéey foofu sax testé nañ leen xool est ce que kii donc fi mu ne ñu ngi yi léegi euh, waa eaux et forêt vétérinaire privé yi waa état bi ñëpp ñu ci kii di xool un peu lan moo koy indi parce que y a beaucoup d'hypothèses est-ce que ay picc yu jógee ci benn dëkk naaw la est-ce que est mais fi mu nekk nii à ce stade là la que suit son cours donc mënuñu la wax de manière précise exactement lan la mais lépp luy feebar fépp la mën a kii piste yëpp ñun on les mais piste bu nekk benn par benn benn par le temps de l'enquête bi day jël temps loo xam ne day jël ñaari fan feebar bi ci boppam ñu gaawantu fi mu fi mu jógee ñu daal di ko bloqué kooku c'est fait ferme yi ko wër daa sax bëriwul ferme yi ñu doon def ci yónnee def foofu ay prélèvement xool fan la affaire bi jaar fu mu jógee voilà docteur Amadou Gueye actuellement optimiste nga ci affaire bi ni mu demee nii avant ba ñuy dugg ci ay mesures conservatoires yeeg yu demee noonu. waaw euh, optimiste naa. Euh, wóolu naa service su état bi bu ma nee service état bi ñëpp la aviculteurs yi vétérinaires yi xam nga vétérinaire ma ñun du ñu distinguer kuy liggéey ci fonction publique ak privée service vétérinaire c'est tout le monde donc ñun ñëpp ñu ngi taxaw xam nga docteur Makhtar Diouf wax na ko sànq xam nga depuis 2005 ak léegi fan lañ commencé mooy bind li ñu war a def ba ñu bindee ba pare ñu def simulation comme plan ORSEC ni ñuy def xam nga bu ñu nee préparation bind doyul. dafa laaj nga tàggat sa bopp xam nga tey jii nii bu fekkoon bind nañu rek te tàggatuñ suñu bopp kon erreur yi ñu defoon bi ñuy def simulation mën nañ ko def tey te kon dafay am danger moo tax ba ñu bindee ba pare ñu tàggat suñu bopp lu mat ñeenti yoon ñu ne ah feebar bi bu duggee fii ñu tànn bi njëkk lañ tànn somon ñu ne ah kinaara géej yi naaw buñ ko indee la ngeenu somon wu yàlla benn polaay nu ñuy def su ko defee dañuy bett ñépp gendarmerie préfet ñu xool ku ci nekk looy def lañ bindoon ndax def ko ko ni ñu ko waxee lan lañ ci amee yore maanaam bu ñu dañuy bëgg erreur yi ñu corriger ko avant ñuy àgg ci aspect réel bañ ko defee ba pare ñu ne ah bu amoon ci frontière nga xam ne ñaari service vétérinaire yu ñaari réew ñoo war a collaborer nu ñuy def ñu dem ba Kidira xam nga Kidira ak Diboli frontière bi lu sew la euh, genre fleuve la léeg-léeg sax du am ndox nga xam ne dëkk bi da ngay dox dem romb benn pont moo leen séparé naka la ñuy def ñaari service yi naka la ñuy coordonner seeni action lii docteur ji wax daal laay dëggal gis nga lii xaw nii puut li ñu waroon def yépp bind nañ ko tàggat nañ suñu bopp ba moo tax mu gaaw xam nga cent mille pondeuses poulaayu cent mille pondeuses nga traité ko pour mu gaawee noonu dafa tàggatoon nga sa bopp suñu xel dal na ba fee nekk nii docteur Matar ji wax na ko feebar bu feeñee fenn li ñu jëkk a def mooy tëj feebar bi mu bañ a génn foofu boo pare ci loolu nag nga doog gëstu fan la jóge xam nga boo amee lu la metti wala boo amee jafe da nga koy saafara d'abord nga deuxième phase bi nag mooy fan la jógee loolu nag enquête la euh, Matajou décrit na ko vraiment mais daal ñun service vétérinaire suñu xel dal na d'autant plus que ba léegi nii prélèvement yi ñu defagul yépp c'est négatif pour yàlla dimbali nañu poulailler ba mu feeñ ci àll la nekk mën naa ni sa benn poulailler jegewu ko lool mais xam nga yoon moo ñu euh, obligé nga def benn enquête cinq kilomètres lu gën a sori léegi actuellement sax léegi ñu fi ñu toll nii mooy service vétérinaire Sénégal yépp ñoo taxaw pour ñu xool saytu képp ku gis lu la tiital nga nekk aviculteur la nga nekk vétérinaire nga woolee service compétent service de l'élevage ñu def prélèvement envoyé ci laboratoire yi xool lan moo jàpp ginaar yi waaye ci kàttanu yàlla daal ba léegi nii dégg gu ñu dara donc suñu xel dal na may fàttali mbokki auditeurs yi yéen topp seen émission waar wi tey jii nag waxtaan bi mu ngi jublu si feebar bi nga xam ni moom moo jàpp euh, njanaaw yee euh, gan comme ni ñu koy waxee mais précisément euh, ganaar yi te fii fii sa Pout mbir mi foofu la yem dégg ngeen li nga xam ni moom nañ wax seen maanaam foofu daal tëj nañ ko la nga xam ne war nañ fa def tam ñoo ngi si mbir moomu waaye léegi yaakaar naa mën nañ xuus si ay yeneen mbir ma dellusiwaat si docteur Makhtar Diouf docteur Makhtar Diouf li may laaj. enquête yooyu ngeen di def naka ngeen koy defee sur le terrain ak ñan la concerné également. waa enquête yi en fait euh, d' abord waa service vétérinaire yi dinañu déglu agriculteurs yi xool d' abord li ñu ko def mooy euh, poulailler yi jege euh, foyer bi dañ fay yónnee ay nit ñu xool dinañ déglu tamit agriculteurs yi parce que ministère dañuy liggéey waa interprofession agriculteur agricole Sénégal mooy ñoom docteur Guèye. maa ñam ñi yëngu yëpp interprofession ñi yëngu yëpp si wàllu ganaar gi. donc ñoom chaque fois su amee information dañuy wax donc dañuy waxtaan ak ñoom parce que ñoom seen i nga xam ne euh, euh, ñoo yor poulailler yi ñiy ak jënd kër yeeg. ñiy doxantoog ñiy jaay si ay dugub ak wala lu mu ti doon. donc ñooñu est-ce que gis nañu wala gisul mais aussi. dinañu xoolaat kii xool est-ce que am na lu ñu lu ñu importé lu ñu importé wul vérifier waat euh, kii yi est-ce que ñëpp ñu importé déjà waa ferme leneen la est-ce que am na lu ngeen importé fu ngeen ko jëlee ainsi de suite xool est-ce que lépp jaar ba yoon. mais si wàllu ñi nga xam ne dañuy importé ñoom lu leen wax. ñuy importé ñoom fu nekk nii lépp loo xam ne dañ ko importé. Mhm. mu jaar aéroport wala mu jaar Rosso da am kii. balaa ngaa importer da ngay dem direction des services nga ne dama bëgg a importer œuf couver wala poussin reproducteur ñaari yëpp la may mel ni la soo xoolee docteur Margoulou nga jëlee kii bi day dem ci porte day moom mu ngi waa OIE euh, organisation mondiale de la de la santé animale am na benn site internet boo xam ne ñoom ci la ñuy waxtaanee bépp dëkk bu am feebar rek dinañ ko signaler chaque jour dañ lay wax la preuve Sénégal c'est de dernière bi ma amee grippe ci foofu la ko signalé au lieu ne ah am nañ dip arrière fii ak fii ak fii la suñu defee noonu mu xool ni ah dëkk bi nga bëgg a importer de amul dip arrière comme c'est bon mu defal la la nag su poussé di dugg si Sénégal na nga indi service vétérinaire yooyu ay feebar ay feebar yu ñu kastal ak feebar am na xeet feebar dinañ la ko limal ne la feebar ganaar bu ñu am benn feebar voilà te vaccin yi ñu mën a yëpp galaatoo ma dañ ko dañ ko jël nga ne d'accord yamul foofu. nga daal di importé ñëw ba aéroport kaay na ne taxawal ana kayit est-ce que li nekk ci li nga waxoon ci carton ñoo yem su boobaa nag service bi bàyyi la nga jàll moom loolu la importation moom c'est strictement euh, kii léegi nag pour delluwaat ci bi. Mhm. gan ganaar yooyu ganaar yu mel te yaakaar naa ne docteur ganaar yi ci nekk war naa au moins neuf mhm. nga ganaar neuf mois kenn mënu ko importé. Mhm. day mën ko importer dégg donc ñun dañu jàpp ne fi toll nii warul nekk ganaar yu importé parce que jur yi moom forcément fii parce que kenn amul droit importer jur fii lañ juddoo. ak ah, jur yi ba tey c'est interdit donc te ganaaru cent mille ganaaru fii la war doon. ganaaru fii la moo tax nag léegi dinañu xool léegi bépp xeetu dugg génn. camion aliments yi ñiy fay dugg employé yi ku nekk fu mu demoon lépp dinañ ko xool ba mun a tracer balaa bi même sax te xool est-ce bi amul ay dépôt wu fu ay ay oiseaux sauvages di ñëw est-ce que amul foofu bari xam ne ay ñanaaw nañ fa loolu ko xool lépp loo xalaat loo xalaatal yépp gars yi dinañ ko kii de manière méthodique pour pour pour xam sans compter nag analyse microbiologie nag parce que fépp fu ñu dégg dafa dee wala kii dinañ xool bu baax xoolal est-ce que du waa mais li ma la bëgg laaj li nga wax léegi fu nu gis njanaaw rek mais njanaaw doo ko dee wax mooy lan ça veut pas dire que ganaar rek la. picc. mën na jox affaire boobu ganaar gi ganaar gi. H5 toujours h 5 n ah bon d' donc du feebar boo xam ne rek si ganaar la laqu. déedéet picc est ce que dañ di faral di daaneel ay picc. jot ngeen sa am ay kaw au Sénégal. non non am gis nañu ay ay canard ay oie. moo tax ma euh, su ñuy def si surveillance active bi dem ci site ornithologie ay parc du jur wala yu mel noonu foofu xam nga dañuy jël pou picc yi prélever ko su demee la su nekk ci. suñu gisee ay picc yu dee fenn dañ ciy jël ñu analyser donc surveillance bi nag comme dañ koy def depuis longtemps. donc loolu moo lay permettre chaque fois yow nga xam foofu bi toll. et régulière yéen a ngi def liggéey boobu au niveau de Djoudj ak zone yi nga xam ne gis ngeen fa ay njanaaw yi surtout yu jógee à l'étranger. di dugg si active muy souvent active donc maladie bi de temps en dem ci ay site parce que xam nañu fu war a war a mën a nekk dañu dem foofu ñu def benn analyse ñu def ñu def analyse def émission jël analyse yóbbu la waa nga xool waaw donc tout le temps état bi di liggéey état bi di liggéey tout le temps tout le temps waaye waaw sànq dag moo wax ni nga ni par exemple ñii di Provence yi ñu xamuma ñi et cetera ñoom seen camion mën na mën na am lu nekk rek muy transport lu nekk mën na fa enquête bi muy demee hmm. ma ne xam nga su nekkee ferme dafa am feebar camion dugg fa ñaan ci ferme génn dugg ci beneen camion dugg beneen euh, kii ferme hmm. moo tax ma ne enquête bi tamit dina topp yooyu waxuma ne dañ feebar moo ko indi feebar dama jox exemple bu ma doon nan la enquête di demee en général ma jox ko exemple ma ne par exemple euh, par exemple jëlal la fer boobu nga xam ne dafa amoon feebar bi su amee camion aliment bu fa dugg camion boo xam ne mën na daal feebar wala déet. Mhm. su camion boobu demee mu dugg ci beneen fer donc enquête bi camion yi dugg foofu jamono jooju danañ leen topp xool. matériel bi yëpp daal. voilà xool fan lañ dem. ak nit ñi chauffeur yi ko doon dawal ak tout ça. Ah, loolu laay expliqué maanaam enquête. lépp lay kii fu mu jógee mais fan la ko mën yóbbu yëpp yëpp dañ euh, si docteur géey docteur Guèye li ma lay laaj lii nga xam ne moom mooy virus bi yan màndarga la am yoo xam ne moo tax ñuy xam ni kii virus bi la maanaam nu ñu koy nemmeekoo naka la mel ak euh, nu mu taxawee. waaw euh, dama bëggoon nga may ma tuuti. Mhm. ma àddu si li expert bi docteur Diouf doon expliqué xam nga. aviculture euh, état daf ko séq ay privé moom mooy état mooy euh, moo yore euh, pouvoir régalien de régenter de contrôler de réglementer ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci ginaar ñu am devoiru appliquer certaines règles appliquer toutes les règles loolu bu amee doo xaar ba feebar am nga doog a teg ay règles xam nga li muy expliquer nii boo bëgg booy teg poulailler maanaam nga ni damay def poulailler surtout poulailler bu mag dafa am ay procédure procédure la ngi tuddee procédure de biosécurité laa bëgg a nii pour mu leer ci yow comme ça dina la mun a tax nga comprendre li ma doon expliquer. biosécurité mooy lan. biosécurité mooy fexe feebar bañ a dugg ci poulailler bi benn comme mënul ñàkk su duggee bu ñuy gëstu mu yomb. d'accord léegi naka lañuy fexe fexee ba feebar ñu dugg ci poulailler bi dañ ne bépp yarkatu aviculture professionnelle dafa am nooy tabaxee poulailler nu muy orienté foo koy teg dafa am distance booy may beneen poulaay bu am ginaar yu bari comme yow. loolu daan ko respecté. oui borom ginaar yu bari ñu nekk ci dëkk bi di am tuuti ginaar waaw. mais fu cent mille ginaar am boo demee ci poulailler ba ne dans un rayon de un kilomètre doo fa gis poulailler. mais ñi nga xam ne duñ ko respecté te nekk si biir ville beeg yu demee noonu te un peu partout si terrasse euh, yenn étage ngay gis nu fay yar lu mat sans poulet et cetera yu demee noonu est ce que ñooñu mën affaire bi mën na leen jàpp. dinaa ci dellu mais dama bëggoon leeral pour que auditeurs yi comprendre. li docteur Diouf di wax. xam nga boo nee euh, dama teg règle biosécurité nga ni poulailler bi nii lañ ko war a tabaxee poulailler bu am cinquante mille ginaar dañ ko war a tëj. defar grillage ba picc yi muy wax nii mu nuy dugg ci biir poulailler ba parce que poulailler boo dem dafay tëju tool bi ci boppam nga tëj ko poulailler bi ki yor caabi ji dañuy xam kan la ki yor caabi tool bi dañuy xam kan la parce que tool bi ci boppam ku fa dugg war nañ xam kan la lu fi doon wut surtout fan la jóge dañu am registre loolu moo lay permettre bis bu lu docteur joo wax nii jotee. ñu ne dat sàngam ba dat sàngam ñii ñoo fi dugg fii la ñu jógee ainsi de suite ainsi de suite loolu mooy tax enquête bi yomb par exemple ñu ne kii indi aliment xam nga camion bi jóge ci usine bi indi aliment bala mu fay génn dafa am benn fiche bu mu yor dafay remplir bu mu jógee fan la jëm bu demee ca buntu tool ba am na benn procédure de biosécurité maanaam comme jaar na ci tali bi romb na ci yoon ñu ne ah war nañ désinfecté pneu yi war nañ désinfecté Euh, seen dàll ña fay dugg kii indi aliment moom du dugg ci tool camion bi parce que dafay am na système boo xam ne lépp lu bokkul ci poulailler bi doo fi dugg mais dans tous les cas am na procédure bu ñu def boo xam ne bu waree dugg ci biir dañ koy désinfecté te toujours dañuy wax ne camion bu livre aliment ci benn tool da nga war a ñibbi parce que dañuy bañ nga dugg ci tool génn dugg ci tool bi bu subaa ñu koy topp donc boo yoree 20 tonnes ci camion bi nga livre poulailler A da nga war a dellu usine ba bala ngay dugg souvent booy dugg ci usine aliment yi di nga gis yenn benn procédure camion yi dugg ci ñaaru pax yooyu yëpp pour que d'abord feebar bañ a dem mais surtout surtout lépp solo mooy registre boobu nga xam ni ku fa ñëw dañu xam ne bis sàngam nga fa ñëwoon fii nga jóge mooy tax suba bu problème amee ñu man a def traçabilité bi mu yomb mais nag euh, ginaar yi ngay wax ci kaw terrasse yi du ginaar yu bari mais nañ jàpp ni ñoom Makhtar Diouf ñii dañ koy tere. dafa di nag dëkku juddi lañu nekk yoon dafay toléré mais yar ginaar ci kër moom du li gën waaye na dañ koy tolere waaye lu ñu ko toléré toléré tamit ñooñu dañ leen di woo parce ñun du ñu état du ñu gendarmerie du ñu sanctionné mais ñun comme nañ ne ñu déewu juddi lañ nekk ñii dañ di former ñoom mënuñu former ñëpp mais docteur Matar Diouf mi mu ngi fàttaliku projet yu bari maanaam heure bu ñu amee projet dañ ciy profiter pour dugal ay formation euh, comme yéen kat yéen a ngi yor ginaar ci kër yoon de da koy tere waaye comme pour le moment bu ngeen lorul kenn yoon du gaaw a yëkkati yaram ah xam leen ni mën nañ ko mën nañ fi ñëw sa voisin bi nga dëkkal bis bu ñëwee ni yàgg xet gaa nga may sonal gendarme bu ñëwee da fi jóge waaye surtout fexe leen ba ñàkk seen ginaar yi ba du ñu am yenn feebar yi képp ku yar ginaar même bu dee quatre cinquante pour cent am nga benn fiche de prophylaxie ka la koy jaay. bis sàngam ñàkk sangam ngay def bis sàngam ñàkk sàngam ngay def bis sàngam ñàkk sàngam ngay def comme ni ñu ñàkkee nit ñi moo tax feebar yu bari yu mel nii doo ko gaaw a dégg waaye xam nañ ne kër yi gaa yaa ngi yar ginaar surtout dans la banlieue mais loolu yépp à défaut de pouvoir wax ni ñu bàyyi dañu ñun jéem a sensibiliser sur les mesures de biosécurité pour que feebar bañ a dugg wala bu demee ba dugg mu bañ a la waaye poulailler mag yi ñoom ah foofu les structures les mesures son strictes parce que xam nañ ne nga am employé investir fa ay milliards doo sàggane loo xam ne ay ñaari millions wala ñetti millions la lay coûter te mën na la indi feebar sa poulailler. foofu c'est le professionnalisme ma ñëwaat si docteur euh, Makhtar Diouf donc maxtar Diouf man j'ai pas eu la chance mën gis euh, mos gis comme poulailler yi nga xam ne dafay def ay cent mille pour des trucs comme ça mais xam na ne si côté yee nekk fee la euh, la dans la partie rurale naka lay demee taxawaay bii est-ce que dafa am une zone uniquement réservée à ça ak yu demee noonu yooyu naka lay taxawee kooku comme nga gis mbirum tool yi nu ni bon fii tool yi la dama dégg sànq bi muy wax muy wax dugg see si biir tool bi mais na poulailler yooyu dañ nekk si biir tool naka lay taxawaayam naka la. par rapport ak environnement bi d'abord. di xam nga débat mhm. yenn xeetu wax Euh, mesure de biosécurité yi noonu wax sànq ñu bëri ko jël borom poulailler yu ndaw yi borom deux cent trois cent yooyu xam nga poulailler yu cent euh, la. industrie la. waaw. cinq cent six cent millions. peut-être même un milliard. xaalis bi du jeex donc souvent da ngay gis day nekk tool bu yaatu ay hectares lay doon fi nga xam ne moo gën ko def bi. ñu def du nekk du nekk xur du nekk fu xaw a kii am na nu ñu koy orienté te nag cher la da bu jar quatre-vingt-quinze millions benn bâtiment kese wala bâtiment bu jar deux cent millions benn bâtiment kese am sans compter nag ganaar donc dafa am ay normes ñooñu souvent suñuy def yooyu du ñu defantu dañu ñëw seeti vétérinaire privé wala spécialiste ay architecte ñu wax leen largeur bâtiment bi parce que bâtiment dafa am largeur bu mu war a am waru yaatu tool hmm. am na nu mu war guddee am na hauteur bu mu war a yor da ngay gis système aliment système aliment bi di nekk système automatique ndox mi automatique la di am sax système ventilation parce que gannaay ak climatisation sax waaw suuf si duggee day neex bâtiment bi damaa fekkal parce que waa ji ay bëgg la ci def ay milliards la ci séntu du ko foyee donc industrie la boo xam ne c'est très très technique waaw donc noonu la bâtiment yi di taxawee te da ngay xool état bi jël euh, protéger ko léegi nag balaa ngaa dugg foofu ay mesures foofu. am na partie boo xam ne mooy lépp lu set partie boobu lay nekk mbalit day sori gannaaw yi nga xam ne dañuy dee am na fu ñuy ndox yi forage am na partie bu ñuy nekk courant bi am fu ñu nekk day am sax ay groupe ak ay groupe secours am ci biir fu ñu denc aliment am fu gaa yi di est-ce que xam ne poulailler yooyu yenn saa yi euh, liggéey balaa saa yi di bu teg amul bés bu nekk ngeen ñibbi de déedéet fa ngay fanaan xam nga lu tax ndaxte ragal nañ nga dem ci dugg ci njëgëjaay wala dugg ci sa place yi dem jëli feebar indi ko surtout poulailler yi cher bés bu balaa euh, élevage bi tàmbali ci ngay dugg bés bu ñu reyee ganaar yi ñu soo génn dama gis sa waa kër ñaari fukki fan dellu si waat su nekkee pondeuse yi beneen système de roulement moo am mais li ma leen gëstu bi nga oto balaa foofu ci bunt bi dafa mujj de rotovive benn saabu kàmb boo xam ne dañ ciy def ay eau de javel ak yooyu su oto bi duggee rek pneu day kii ci eau de javel bi léegi gars yi dañuy yore ay genre. Euh, kii bi mu tudd waaye. Euh, pompe pulvérisateur pompe yooyu noonu. Mm-hmm. comme yi ñuy pompé gàncax def ci ay produits lu mel ni ay vir koog yooyu oto bi dañ koy kii yëpp da ngay jaaxal sax bu dugg ci biir yenn yi sax yow si boobu balaa ngaa visité déjà dañuy teel ko visité borom kër gi su ñëwee ak ñi fi liggéey da ngay daal di dugg ci benn douche sangu ba pare ba set sol yeneen yére yu wutee yi nga sol da ngay ñëw visité poulailler bi soo ko xëyee nga summi ko soo ko génn donc mesure de sécurité yooyu yëpp ci poulailler bi dañ koy jël. am na dëkk yoo xam ne am na sama benn xarit euh, daawaati jéeg dafa bëggoon dem Canada visite leen poulailler question bi ñu ko posé ce que ci trois semaines yi mujj dugg nga ci poulailler dégg nga wax ji mm-hmm. nee na ko ci trois semaines yi mujj est-ce que ci benn fan ci dugg ci poulailler soo ko nee dee mën a déedéet comme dugg nga ci poulailler xëy na am fekk nga kon nag doo dugg sama poulailler donc dama la laaj affaire yooyu la ñuy kii te ay poulailler yoom la loolu balaa yomb Sénégal yu mag a mag a mag moo tax nag soo gisee fi nekk développé mu génne lu ma deux cent trois milliards c'est parce que daf ci am ñu investir xaalis bu fas yéene nag euh, tedd ci fas yéene tamit euh, fexe ba. Euh, deux cent trois milliards mooy li nga xam ne moom la ñu en terme de chiffre d'affaires en deux mille dix neuf. deux mille vingt kenn kii wagul n'a pas naa ne commune janvier bon on a tous les tous les chiffres du yàgg leen jox kii bi mm. waaw ñu mën jox incha allah. Euh, chiffres yi waaye Covid bi daanaka diggante bi am na tuuti lu yàqu il faut ñu jéem impact Covid bi pour mën a génne. waaye daan si ak incha allah léegi affaire bi donc am na ay yoo xam ne yóbbu nañ ko pour ñu xool ko si ay yenn. Euh, laboratoire jumtukaay voilà laboratoire kooku naka la demee. waa mais comme ni ni ni docteur Diouf expliqué xam nga feebar bu duggee fenn li jëkk bala ngay wax leneen danga naan feebar nañ ko tëj surtout bu dee feebar bu garaaw. ñun moom la ñuy tuddee maladie légalement contagieuse loolu loi wu état bi la ñu ne bis boo gisee benn ci maladie yii légalement contagieuse li njëkk mooy fa nga ko gis daal fexeel tëj fa feebar boo defee loolu ba pare parce que avant ngay xam ni feebar boobu la euh, même bu fekkee ne vétérinaire bi xàmmee na signes yi maanaam symptôme nga ne feebar bi kat nii la mel nii la mel mais loolu xam nga yaakaar la mais pour mu wóor. dañu am ñaari laboratoire o Sénégal fii yoo xam ne référence mondiale la laboratoire vétérinaire yi mooy l'INERM ak Pasteur ñaar ñooñu nga ne ah man yaakaar naa ni lii la bind jox leen li nga gis nga ne yaakaar naa lii la waaye wax xoolal leen ma ndax wóor na parce que nag état du yëkkati ma gendarmerie ci yaakaar naa donc day wóor bu wóoree ba pare nag laboratoire ñaar rek ñoo ko fa mën a wax Sénégal Sénégal fi ñaar ko fi wax Pasteur ak l'INERM loolu mooy analyse de laboratoire lu ngay dégg boo indee euh, sa prélèvement prélèvement nag dafa am nu ñu koy defee jàngal nañu ñun ñépp ni ñu ko war a defee ba nga xam ne euh, vétérinaire yépp kuy technicien vétérinaire rek xamoon nooy defee prélèvement parce que boo ragalee feebar bu metti doo def prélèvement yor ko sa loxo dugg car rapide wala nga dugg transport en commun dañ la ne soit man nga def la nga war a def yow nga teg technicien wala nga woote service état bi ñoom maxtaar def ñi fi teewal nga woole ñu ñëw defal ko seen bopp surtout boo xalaatee lu garaaw ñun dañ leen di sax bu dul vétérinaire nga aviculteur rek nga tax xamoo ni ñu koy defee vol vétérinaire wala nga woo service ñoom dañu xam ni ñu koy defee loolu nag bu amee ba pare ñu doog nag gëstu nag ah njombe fan la jaar ba dugg fii mais njombe bi la jaar ba dugg fii tamit dañuy def dañuy dem fekk poulailler dara xewu fa ñu def prélèvement moom la lay wax gëstu wante li ëpp solo docteur Diouf expliqué na ko mais yaakaar naa ni leer na. xam nga tey jii nii sëñ Maxtaar boo bëggoon dem dugg ci pulaay bu am pulaay mag yi ah préparé di nga sangu de lu mu sedd sedd parce que mënoo fa dugg te sangu woo te sax mënoo ñëw rek ñu bàyyi la da ngay demander autorisation ñu wax la ñëwal tey wala ñëwal suba loolu état rek moo ko man état rek moo man ñëw fëgg dugg parce que état moo am doole boobu mais ñun ñëpp muy docteur Matar Diouf ñun vétérinaire yi tey jii man boo fa demoon même su fekkee ne xam nañu vétérinaire laa bala maa dugg dinaa summi sama yére yi ma ndiwaale woon ma sangu ma sol tenue loolu la ñuy tuddee EPI équipement de protection individuelle pour mën a dugg ci poulailler su may génn bàyyi ko foofu solaat sama yare dem xam nga loolu lu tax docteur Matar ji wax na ko kenn du def te 3 millions ba pare di sàggan mu yàqu poulailler yi ngay wax nii bis boo fa demoon di nga mu bu fekkee ku mosul gis la ginaar yooyu ni ñu leen di traité danga naan ah fii day nekk fi ginaar moo gën nekk fi nit <laughs> waaw parce que daal dañuy fexe lépp lu jëm ci wér yaram ñu def ko. moo tax euh, tey jii nii euh, ci kàttanu yàlla ci ndimbalu autorités yi laboratoire yooyu euh, muy l'INERV muy Pasteur lu ñu war a am ci équipement lu ñu war a am ci personnel formation yu ñu def parce que depuis cinq nag xaaruñu laboratoire yooyu dañu am spécialiste ay docteur comme ñun wala ay biologiste ñoom ñëpp depuis 2005 ku ci nekk dem nga fa formation étranger lu ma juróom yow wala juróom benn parce dañ ne ah waaw bu ñëwee. te ñun suñu ressources humaines formé wul leen nu ñuy def ñoom ñépp koo ci gis kii dem na formation fa ñu yaakaar rek am nañu dem Canada am nañu dem France am nañu dem Angleterre fu xam-xam nekk ñu dem jëli ko ñoo laboratoire yi am Europe c'est les mêmes équipements ñoo bokk école yu ñu jànge donc ñu jàpp ne bu ñu nee am na am na te bu ñu nee am na euh, lu tax ñu mën a am na mooy ay équipe indépendant de certification ñoo jógee feneen ñëw. ñëw xoolaat ni ñuy liggéeyee. ni laboratoire bii kat jox nañ ko agrément. ñu ne laboratoire tel au Sénégal y a deux de référence pour euh, diagnostic la grippe aviaire am na réew yoo xam ne sax amuñu ko am na tey jii nii du ma du ma tudd waaye am na réew yoo xam ne bu fa amoon Sénégal la ñuy envoyé seen i prélèvement xam nga nag loolu bu amee dañuy dañuy sant yàlla heureusement que réew yi ñu jigéen yépp amu fi woon waaye nag dañu jàpp ni daal Sénégal moom euh, euh, autorités yi taxaw nañ ci ñu am laboratoire ñun ñi nga gis nii laa bala ngay mën a jàngal dañuy jàngal man docteur Makhtar Diouf mais yaakaar naa ni fi ñu dem bare da ci génn Sénégal ànd ci ñu formé ñu ñun ba pare parce que ñun ñoo war a formé waate donc ñun dañ ñuy formé parce que ñoom bu ñuy formé toujours du ñu formé fonctionnaire yi rek dañuy forme fonctionnaire yi mais privé yi nekk sur le terrain. xam man duma fonctionnaire waaw parce que mu ngi nii fi ñu ànd bari na de ci àdduna bi man ak moom fi ñu ànd bari na euh, soit ñu dem ay conférence fekk ay borom xam-xam di wax mais tamit parfois ñu dem ay formation mais loolu sax peut-être léegi mën nañ ni lu ci bari xam nañ ko mais bu njëkk diggante 2005 ak 2010 fi ñu ànd maanaam moom bari na. loolu mais laboratoire yi ñoom du ñu certifié ñoom. laboratoire certification bi mooy dañ leen di certifié xam nga certification. ñaar laboratoire yi nekk Sénégal ñoom lu ñu keneen moo koy def. Mhm. keneen mooy ni laboratoire bi am na agrément pour faire analyse day ñëw xool jumtuwaay yi xool say procédure xool ña fay liggéey seen i. ne. Euh, laboratoire bi mën na ko def donc certification loolu la certification dañ naan yow kat man nga def liggéey bii su ko defee bis bu grippe aviaire amee soo waxee muy wax bu dëggu loolu rek la woon c'est que tey jii nii laboratoire Pasteur su ko waxee grippe aviaire am na ci poulailler bi moo tax ba mu amee lineer bu mu génnee résultat kenn du ko contesté OIE ci boppam xam na ni lineer bu Sénégal su nee grippe aviaire la grippe aviaire la parce que ñoom seen bopp ñëwoon nañ fi xool ci ñu doon certifié ci la ñu bokk. parce que nit ki nag bala ngay mën a wax dañu naan ah yow mii kat am nga droit wax loolu mooy certification maanaam yow jàpp nañ ni am nga jumtuwaay yépp pour mën a analyser feebar bi ndax am na walla amul loolu moo taxoon nag depuis 2005 ba léegi tamit ñu ngi dafay ay bu amul ñu ne amul donc laboratoire boobu doon wax amul amul amul amul bis bu waxee waxee am na kenn du ko weddi parce que am na accréditation am na certification. voilà docteur euh, Makhtar Diouf dama bëgg dellusiwaat si benn. Euh, wax dégg nga léegi sànq waxoon nga ni euh, foofu nga xam ni moom mooy yi fi nekk dañuy toppatoo ginaar yi vraiment di leen seet bu fekkee mën naa wax di leen vacciner sax pour benn jàngoro ba ñu am si ñoom mais comment se fait-il donc que jàngoro bi ja jàppalante yi d'autant que ñoom précaution yi ngeen wax fii yëpp dañ koy jël c'est vraiment total muy nit ki fay dugg muy oto bi muy ganaar gi si boppam ñoom ñëpp dañ leen di toppatoo toppatoo bu extraordinaire léegi yéen si seen wàll bopp rek ak expérience yi ngeen am peut-être sax feneen foo xam ni fa la daan am lan ngeen xalaat ni tey jii xëy na daal lii la war doon bien que sax xëy na du xëy na lii moo ko indi. léegi xam nga foofu la enquête bi amee amee njëriñ la xam nga enquête bi ñu formation yi ñuy def dinañ la wax feebar fii ak fii ak fii la mën a jóge mais ban la ci ban ci piste yi est-ce que benn waay moo tukki woon dem gis des poulailler bu amoon grippe aviaire ñëw est-ce que benn picc la. bu jógee France France seen mu ne Sénégal moo dàq kenn xamul enquête bi ci boppam moo lay mën a wax li nga xam ne moo am léegi lan moo tax ganaar yi feebar feebar yi dugus na c'est parce que ganaar yooyu kenn vacciné wu leen lan lu tax kenn vacciné wu leen. lu tax kenn vacciné wu leen. Ah, parce que du ñu euh, dëkk bi feebar su amul ci dëkk kenn vacciné feebar su amul kenn kenn vacciné dañ koy def. ah dañ ko tere. te non dama ne. waaw dëkk su amul benn feebar kenn du vacciner feebar boobu. waaw par exemple soo jëlee Newcastle maladie Newcastle. Mhm. fii Newcastle dafay bëri mais Europe duñu vacciner Newcastle xamul daal parce que Newcastle amul dafa doo vacciner doo vacciner feebar bu mhm. feebar yi soo xoolee carte mondiale bi dañaa naan Sénégal tel feebar moo fa am. Mhm. dëkk bi tel feebar moo fa am Suisse li moo fa am Irlande. après ñu ne la dëkk bi amul bii feebar souvent nit ñi su nekkee risque bi c'est pas élevé wala wala scientifique yi juge pas nécessaire juge wuñu nécessaire ñu ñu ñu vacciner ba ñu vacciner est-ce que est-ce que wax. dégg naa ko mais loolu balaa nga vacciner. Mhm. il faut que nécessité bi posé wu. Mhm. léegi am yeneen argument technique yoo xam ne mënu ma par exemple. ah docteur Guèye maa ci loo xam ne auditeurs yi ko nangu xanaa ma doon xuus ci tuuti <laughs> de chair durée de vie quarante cinq jours quarante trente cinq jours fois duñ leen bëgg a vacciner ci yenn dëkk yi duñ leen vacciner tout aviaire parce que seen dund dafa gàtt même soo jëlee pondeuse yi nga xam ne mën a def presque ñaari at ci dëkk yooyu pour yi la ñuy gën a vacciner poulet de chair bi ñu leen laal jëlal maladie de marée marée. balaa moo feeñ ci ginaar yi ganaar yi am ñaari weer donc Polynésie dina leen vacciner Mbare waaye Polynésiens dina leen vacciner Mbare parce que euh, balaa balaa mbaa balaa su ñu amoon feebar sax balaa feebar dina fekk rek leen lekk ko a faire. ñoom yàgg na da pour jaay la. donc 35 jours 35 jours. jaay léegi fi nekk nii suñ demee ñaan na ko feebar bi sax fi ah su boobaa scientifique comité scientifique bi dina réunir. ñu xool par exemple soo jëlee euh, maladie euh, influenza aviaire faiblement pathogène day xam ne ñoo aviaire bi mais bëri du moom boobu am nañ fii depuis 2016 Sénégal 2016 2017. 2017. 2017 toog nañ xool ñu ne de feebar bi comme dugg si na nañu vacciné donc ñun dañuy vacciné contre influenza aviaire faiblement pathogène parce que feebar dafa dugg si fas yéene dëgg si nangul dem. mais biir carrière bi ñoo ci benn poulailler kese lañ ko gis gisaatuñ ko feneen boobu ba léegi analyse nañu foofu yépp analyse gisuñu daal fi mu nekk ñu def suñu enquête su affaire bi egg na feebar bi réer gisuñu ko Sénégal jarul jarul ñuy vacciner donc balaa ngaa vacciner toujours ne il faut que nécessité vous poser mais ça c'est un débat qui est scientifique. ah scientifique mais mu ngi pourtant mi ngi li mu rey mi ngi bëgg a ah cent mille kooku. kii benn benn poulailler ñu dañu benn foyer la loolu yëpp benn benn foyer rek la benn foyer la mu amoon dix ganaar vingt ganaar trente ganaar cent ganaar mille ganaar benn foyer kese la voilà par contre su amoon nag fu ne Sénégal ah à ce dañuy daal di yeneen mesure ñu yeneen mesure pour xool nan lañ koy kii donc li ma mooy loo fagaru fagaru fagaru fagaru le risque. zéro n'existe pas. ça n'existe pas. Ouais. Euh, si yow euh, docteur Guèye. li nga xam ne moo doon ay pays nekk sous région kooku yan li si tiir woon si wàllu expérience par rapport ak tey jii affaire bi bu mu dugg si. waaw li ñu ci tiiree ci wàllu expérience mooy ba mu amee jigewuñu sax parce que fi ñu gënoon jige yaakaar naa ni du ma juumalee docteur Diouf Côte d'Ivoire la woon a Burkina donc am na ay réew yu dox suñu diggante mais moom wax na ko mooy tëj frontière yi ñu ne lépp lu jëm ci ginaar buy dund nen bu ñuy lekk du dugg du sax réew yu ñu jige dugg. léegi boo bëggee indi ginaar boo xam ne day day dañ koy dugal ci couvoir mu génne cuuc ëf à couver wax na ko ak ginaar boo xam ne moom mooy nen fii nen bi nga xam ne day génne cuuj reproducteur loolu da nga koy jële ci réew boo xam ne amul grippe aviaire ba pare ñu ne fii ngay jaar lii ngay def wax na ko duma ci dellu siwaat donc dañu aaroon suñu bopp tëj suñuy frontière ci tous les produits avicoles sauf ñaari produits parce que ñaari produits yooyu c'est une nécessité pour que aviculture Sénégal ma a dund su ma jógee ci loolu damay rebondir yan la woon mooy nen bi nga xam ne dañ koy boof mu génnee cuuj ak ginaar bi nga xam ne repro parce que fii am na ñoo xam ne dañuy yar ginaar pour mu am ay OAC parce que OAC nga ko importer OAC mooy œuf à couver mooy nen bi nga xam ne bokkul la nen bi ñuy lekk mhm. nen bi nga xam ne dañ koy dugal ci couvoir mu génnee cuuj man nga ko importer mais mën nga tamit jënd ginaar bi koy nen nga indi ko fi. mais gannaaw googu est-ce pour ñu dugal ko fi. waaw mais ci ay procédures yu seeree seeree seeree te ñi ko fiy dugal bariwuñu. Mm-hmm. docteur Diouf mën na ci ñëwaat moom mii ci ñu joxe autorisation ci la bokk. Mm-hmm. dañu xam fan nga koy yare mais dama buggaat a ñëwaat ci vaccination xam nga Serigne Makhtar gi nga vaccination lu lu ñuy saytu la agriculture ministère de l'élevage ak ministère yi koy laal yëpp dañu am li ñuy tuddee comité scientifique ñu ne yan feebar lañuy ñàkk. naka lañ koy ñàkk yan feebar lañuy ñuy ñi wër ginaar yépp ci wàllu xam-xam ak ci wàllu jëf mooy aviculteurs yi ñu ne feebar yii kat moo am Sénégal ñu lim ko ministère ba mu waxtaanee ñooñu ba pare dafa génne benn loi ni feebar yii dañ leen war a ñàkk naka lañ koy ñàkkee ak vétérinaire privé public ñu bind ko teg ñu ne nii ak nii ak nii ak nii nga koy ñàkke ba nga xam ne aviculteur bu ci jëndi poussin yi ka lay jaay poussin yi dafa lay jox ñu la boo demee bi sàngam defal ñàkk bi waaye nag du ñu ñàkk feebar boo xam ne amul ci réew euh, mbas mi di Covid 19 amul woon kenn xamu ko woon donc waxuñu woon waxi ñàkk waaye nag ñakk nag moom ñun dañ ne mooy ñaareelu arme ñaareelu arme ba ci jëkk mooy fexe dëkk bi bañ am feebar boobu mu bañ a dugg. maanaam sax ñàkk mooy ñetteelu arme bi arme bi njëkk mooy feebar bi bañ a dugg moo tax arrêté décret présidentiel la woon sax du sax arrêté ministériel décret présidentiel mooy kilifa gën a kawe ñu ne nañ def lii nañ def lii nañ def lii nañ def lii pour feebar bañ a dugg bu feebar bi duggee. mais si wàllu prévention boobu ngay wax. waaw du fekkee dama jël kaaw bii laa. tre bien fa laa jëm si ñu ne bu feebar bi duggee ngeen fexe fa ngeen ko jëkk ngeen gaaw maanaam agir rapidement promptement pour que point ba mu duggee mu yem foofu. donc ñetteelu arme bi mooy bu ñu demee nag ba feebar bi tas maanaam comme ni ko docteur Diouf waxee bu ñu dem ba nga xam ni que feebar bi kat même bu bariwul Sénégal sax am na fi am na fi am na fi ñu ne ah ñàkk a gën a wóor waaye ñàkk bi moom mooy ñetteelu arme waaye nag bu ma ñëw ci prévention bi mooy naka la ñu def ba fexe ne feebar bu mu dugg Sénégal xam nga sànq wax naa la ne bi njëkk mooy ñu tëj frontière ci lépp li produit aviaire sauf ñaar c'est des produits vraiment essentiels te Sénégal comme amul ah, OAC yu doy am na sax ñu koy produire mais amul OAC yu doy il fallait que ñu bàyyi ko mu dugg sinon yéen du ngeen lekk ginaar ba ca topp ñu ne lépp lu jëm ci produit yooyu ñu permettre nii ak nii lay duggee ba ca topp ñu ne docteur Diouf xam ne li may wax frontière boo dem foo gis douane di nga gis agent vétérinaire ci wetam waaye nag kanaara yi naaw mënu leen téye ngelaw bi mënu leen téye am na paramètres yoo xam ne daal surveillance boo tëjee ba pare ngay wër sa réew xam nga la lañu bëggoon bu ne càpp fenn bala moo tax ñu gis ko te loolu nag moo permettre ñu gis ko put euh, surveillance boobu parce que nag le risque zéro n'existe pas feebar moom yaakaar naa ni bu risque zéro existe wala bu fekkoon saytu rek wala xarañ mooy tax réew mucc ci feebar kon France ak Amérique du ñu am Covid. mais actuellement dans la sous-région déggatoo ko fenn ku pays bu ko am actuellement. waaw ci loolu nag dañ ci kontaan grippe aviaire sore woon nañu parce que fi ñu ko mujjee dégg mooy Côte d'Ivoire te xaw na yàgg docteur Diouf na ko sànq xaw na yàgg. parce que boo duggee OIE rek ñoom dañuy génne carte information yi nga fay fekk pays bii foofu ñu ko jógee Sénégal actuellement nii dafa war a def rapport li ñu def nii yëpp mu bindal leen ko ba feebar bi génnaat nga gis ñu ne ah Sénégal amatul feebar boobu mais loolu ñun bu ñu ko waxee ba pare OIE li ñu bind ñoom waxtaan Diouf service yi ji koy bind. dañuy xool li ñu bind ba xam ne jaadu na su jaree ñu ñëw fi ñu ñëw fi ñu xam ne amatu fi mais ci gàttal daal feebar bi moom fan yi dégguñu ko ci réew yi ñu wër waaye nag dama bëgg a service vétérinaire officiel yi xam nga xarañ mooy lan nga mën a xam sa réew lan moo fa am ak lan moo fa amul ñunu xara bu ñu kenn mais daal li wóor mooy feebar bu duggee Sénégal ñu dinañ ko yëg parce que on est bien préparé parce que on a des services vétérinaires aguerris bien formés parce que moi ci les connais bien formé xam nga toujours dañuy jàpp ni privé public toujours ñu naan privé bi moo gën a non au Sénégal bu ñu nee service vétérinaire ñëpp la la plus la preuve mooy wax naa la ni heure bu opportunité de formation amee dañuy boole public ak privé privé bu dem moom rek privé bu dem moom ñaar bi la ñuy boole parce que benn service la ñun daal li ñu bëggoon mooy tëj nañ frontière ci yenn produits yi taxaw nañu ak suñuy matuwaay mais comme le risque zéro n'existe pas ñu ne fu mu feeñ na ngeen ko gis léegi léegi. su ngeen ko gisee na ngeen def lii ak lii pour dëj feebar bi foofu ci lañu nekk jàpp nañ ne ah ngeen ñaan nu yàlla waaye daal lañu war a def yépp def nañ ko feebar yam foofu d'accord léegi docteur Makhtar Diouf ma del si waat si si yow waaw euh, ganaar yi nga xam ne ñoom nañu kii kooku ganaar yooyu anuñu tey waaw juste pour et euh, compléter docteur Guèye. Mhm, rapidement Tamba Guèye doo dëkk bi nga xam ne moom la ñu ci Afrique subsaharienne bi ñu gis euh, euh, influence aviaire bi mooy grippe aviaire bi Côte d'Ivoire ah, la ci Afrique du Sud loolu le 14 de 14 décembre. Mhm. bële donc sa fait presque ñoom ci la ñu notifié woon donc xool naa ci dëkk yi yëpp Afrique gisuma ko fi li ñu dégg yëpp Afrique du Sud am ah, sori na. waaw résultat boo yore daal laa léegi gannaaw li ngay wax. Mm-hmm. waaw xam naa ñuy sant seen ak yooyu moom. <laughs> dañuy wax bu leen neex. Mm-hmm. waaye gis nga bi loolu amee dañuy jëli ay camion benn ay tracteur ak yooyu ñu daal di gas. Mm-hmm. gas bu mu xóot. léegi nag jàpp ma ko exactement mais am na largeur bu pax bi amul ak longueur ak xóotaay ñu daal di jël soow soow vive xam nga la chose. gis nga la chose day baax. daal di ko sotti ci suuf. xam nga ñaata pot ñaata kii siwo. deux cent lakk. ñaata pot cent. deux cent deux de de vingt kilo de ñu daal di sotti ci suuf def ganaar yi sotti essence lakk ba mu xam ñu daal di sotti waat la ci kaw jëli gis nga gis nga tracteur yooyu yore benn ci kanam. ak kii bi mu tudd bi. da daal di yëpp bu ñu ko suulee ba pare nëpp nëppal ko bien que ba mu kii camion bi jaar ci kaw ñu daal di ko. délit bi te nag de de gis nga bi def loolu gendarme gendarme ñu taxaw waaw kooku moom loo sant sant seen gannaaw yi doo doo jot xam nga lu def loolu def nañ noonu nen yi def noonu aliment xam lu tax mhm. ndaxte doomu jàngoro bi day des ci ginaar yi bi des ci nen yi des ci aliment bi su génnee foofu rek musiba wu na donc noonu nañ ko doxalee ganaar yi yépp ñu daal su lakk mu jeex tàkk mais kooku yenn saa yi da nga daan gis euh, ci euh, ñi nga xam ne ñoo daan dem di suul conservé yi foofu moom c'est un différent parce que ay fer la mais gars yi doon suulee ba pare ils avaient d'énormes problèmes ak villageois yi parce que gars yi dañu daan ñëw di suuliwaat affaire yi pour lekk yéen entreprise lu ngeen di sécuriser affaire boobu. Hmm. comme les produits là waaw waaw mais bii feebar bi la. xam nga hmm. virus am virus du caaxaan. virus moom gis nga ko ci Covid fa la ñu toog ak gendarmerie bi def liggéey bi te même fenn dañ ko boucler te yemuñu foofu de poulailler bi ci boppam dañ ko nettoyé désinfecté service d'hygiène ak ñëpp a nga foon ba mu ba mu ba mu rafet ñu bàyyi noonu foofu kenn mënu kenn mënatu koo dafa xóot te diggante de chaux-vive lañ ko def lakk ko ba def ko ci diggante diggante deux couches deux xam nga su mhm. mu kii daal. ba mu yàqu daal. xam nga pour compléter loolu. oui tey jii poulailler boobu. gendarmerie moo yor sele yi maanaam tey poulailler boobu yow mi boo demoon doo dugg keneen bu demoon du dugg. pour combien de temps nañ koy tëj. gën ngaa néew ba service vétérinaire yi gëstu ba pare parce que feebar bu amee fenn mën nga jàpp ni boo toogee ñaar fan a benn déggu ko aux environs mën nga wax ni feebar bi foofu la yem mais loolu wóorul dañ ne bu jëree ñetti weer ñu tëj ko loolu mu ngi dépend ci enquête épidémique yi mu waxoon am enquête épidémique mën na compliqué mën na simple simple dafa am ay durée yu ñu wax. bu ngeen demee mais gën gaa neew weer lañ koy tëj mais mën a dem ba ñaari weer mën na dem ba juróom-benn weer léegi nag li am solo ba am solo mooy nañu jàpp ni waxuma la gas ginaar yi waaye poulailler ba sax kenn mënu fa dugg. te jaaroo gendarmerie da ngay dem sax préfet préfet xam nga préfet mooy gérer loolu parce nga moo mën a mobiliser mu defal la autorisation nga dem jox ko gendarmerie ñu bàyyi la nga dugg boo nekkul technicien foofu technicien rek moo mën a dugg te technicien bi xam na nu muy ñëwee. lu muy sol lan la war a def lan la warul def donc ginaar yooyu moom na sa xel daal fa ñu leen lakk ba ñu ñor ñu doog ko suul mu nit mënu fa jigee sax en tout cas ku ci liggéey mënu fa jigee sax ba naan da koy gas. mais entreprise boobu kañ lay mën commencé waat jëlaat ay activités. ah waaw loolu nag euh, dama bëgg leeral ko pour que euh, aviculteurs yi wax nañ leen ko xam nañ ko mais ñu gën ñu jàppale xam nga tey ji nii boo déggee ñu ne rey nañu téeméeri junni ginaar xam nga. ñun dañu ni benn foyer la mooy benn unité épidémiologique mais bu nekkoon un million ginaar mu nekk ci benn place benn foyer la dañuy jàpp ni benn feebar la moo mook benn ginaar feebar ñoo yem ci benn place xam nga état mooy ñëw ak ay moyens état ñëw loi bi moo ne da nga war a dañoo war a rey ginaar ka ko moom ginaar sax moom mën a togg di seetaan gendarmerie la état di mobiliser gendarmerie dem wuti pelle mécanique wuti léeg-léeg lii loolu état moo koy def maanaam service vétérinaire public ak privé ñooy ñëw taxaw. ak état boo gisoon photo yi da ngay xam ne lii état taxaw nag matuwaayam su ñu reyee ginaar gas ko ba suul ko ñu ne waaw yow mi yor poulailler bi nag ah nu ñu def ak yow état nii yow mi yor poulailler da ngaa investir ay millions yu bari pour am ay ginaar comme euh, bañ a tas feebar bi comme santé publique lañ nekk comme aar la yow waaye aar senegal la yeeg ñi yor ginaar yépp moo tax ñu rey say ginaar état ni dama lay jox ndàmpaay loolu nag. moom mi toogal état mën na ci gën a sori waaye daal nañu jàpp ne état moom ku mu rey say ginaar suul ko dina la jox dàmpaay parce que kii mhm. borom poulailler boobu am téeméer ju ni ginaar même cinquante huit mille li nga xamoon sa jëkkoon naa dee état limaale na ko quarante huit yi nga xam ne dañ koo boole cadavre yeeg lañ fa fekk yépp gas suul lañ fa fekk ci reste aliment lañ fa fekk ci leneen ak leneen loolu yépp état daf koy xayma ni la ah yow kat yàq yàq la nga nàngam nangam lii mooy sa ndàmpaay te loolu leen loolu nag du lu ñuy nattable table à di loolu lu ñu waxtaane woon la ba teg avant lii di am ñun dañu ni état dafa toog ñun privé yi toog képp ku ci am looy wax nga toog ñu ne waa lii bu amee nu ñuy def dañuy gas suul dañuy def lii ba pare ñu ne waa ah waa borom ginaar nag nu muy def ñu ne nangam bu amee lii nangam lañuy def waaye nangam yooyu ñu waxoon ba pare ba teg kayit la état moo ko yor loolu nag prérogative état la. xam nga ñun privé duñ mën a sori ci loolu waaye nañu jàpp ni daal fan yu nekk nii bu kenn tiit ku gis sa poulailler loo ragal na nga woote parce que bu lu ñuy bañ amee ba état ñëw suuf say ginaar état dina la jox ndàmpaay loolu na dama bëggoon docteur Diouf euh, wax ci parce que moom moo fi toogal état docteur Diouf euh, léegi affaire boobu naka lay demee léegi ci calamité am na balaa. comme ni ñu koy waxee calamité am na léegi kañ day ubbiwaat ak naka lay demee en terme de dédommagement wala lu ñu si mën def surtout nag du fekkee ne nekk en période de Covid y compris également les travailleurs. waaw léegi xam nga du euh, technique poulailler ba mu feebar balaa ñu fay mën a liggéeyaat dinañ def analyse ba gis ni feebar bi amatu fi virus bi la circuit virus bi circuit mhm. donc nettoyé nañ ko désinfecté ak waa service d'hygiène ñu wër ñu nit ñu nettoyé ko pare mais après wàllu ko dinañ ñëwaat dafa ay prélèvement jël tuuti ci suuf si euh, def euh, laay raay mur yi ay chiffon ak fu nañ dem xool parce que am am na benn diir boo xam ne comme ni ma ko au moins dina mot au moins une semaine un euh, trois un mois comme ni wax il faut que mu wóor ñu ne dara nekkatu fa d' abord. suuf si ñu gasoon dugal affaire yi si biir. kooku parce que show bi. suuf suuf sa amatul. gis nga show jàng nga show. du mhm. muy baax. soo lalee laa show ci suuf. Mhm. teg ci gànnaar yi nga lakk sotti wax ci laa show dara xajul. ah dara xaju fa c'est que veut dire donc rey na microbe yeeg yëpp. c'est deux couches de show vive te da gas dafay xóot soo gisee image ay camion ñoom ñoom ay pelle mécanique ñu koy suuf. day day yu xóotu xóotu donc kii bi yëpp rey na ko lu fa nekkoon jàngoro gi dum yëpp kii waaw chute da koy rey. voilà ñun nettoyé poulailler bi désinfecté ko ak ay produits spécifiques lu mel ne ay véhicules yooyu sotti ko ci léegi nag ñu xaar suñu xaaree euh, di diir bi ñu wax ñu ñëwaat defaat ay analyse yóbbu ko laa ma xool suñu gisul virus bi mun nañu autoriser su certaines conditions. Euh, borom mu commencé waat liggéey fii affaire ndàmpaay moo ci sori ndax il faut pas que ñu ne docteur moo lay suuf affaire. non déedéet c'est-à-dire le principe rek naka la demee ko un peu ku yàppale calamité la surtout période Covid bi nekk encore. ay kayit yu bind ba pare la. gannaaw gu nekk temps gannaaw gu nekk temps gannaaw gu nekk temps dinañ ko dinañ ko xayma léegi nag nekkul ministère des finances nekkuma gérer wu fond calamité kooku moom dama ci màgg waaye daal principe bi mooy comme ni ñu ko waxee état bi su abattre. di ma abaate te am am na benn ndàmpaay boo xam ne moom la ñu prévoir pour euh, ki nga xam ne moom moo moom la ñu abaat ay gànnaar waaw te comme ni ko waxee abattage sanitaire la c' est fait pour dëkk affaire bi bañ a bañ a bañ a siiw dëkk yëpp nag ku ñu koo xam ne état bi pour des e sanitaires dafa abaat say gànnaar wala say xar wala yeneen dans certains cas particuliers am na benn département boo xam ne état a dina dina dina ko jox waaw léegi nag daanaka il faudra que ñu topp dossier bi xool exactement am na ñoom ñooy seen liggéey. loolu waaw mais du fekkee ni kenn ñaanu ko yàlla ah mais dañu jël yeneen cas yoo xam ne amoon sa ay yenn réew yoo xam ni gisoon nañu abattage bi dafa yaatu woon trop surtout Afrique sud boobu sax ngay wax dans le temps tam gisoon naan Nigéria affaire bi ni moom fa kii woon. mais est-ce que du yaawee trop mën na am impact ci sécurité alimentaire par exemple benn dëkk. benn réew. parce que am na réew yoo xam ne dana mën consommer trop euh, euh, poulet lu mel na ay Burkina et cetera et ah te léegi yéen kenn dàqatu leen léegi consommer poulet <laughs> bon voilà. mais gis nga fépp foo xam rek xëy na ñu wàññeeku wala nag yi wala ganaar yoo xam ne ñu ngi ne normal. mais c' est quatre vingt mille c' est au moins quatre vingt mille poulet quatre vingt mille nen par jour quatre vingt mille nen la yuy wàññeeku ci Sénégal yi mën a consommé ba ça moom c' est vrai waaw mais kooku la limite ndogal bu dem borom la parce que du loo xam ne neex na ko waaw mais derrière moom tamit effectivement su nekkee indemniser nañ ko mu redémarrer bon dina xëy na ndax gab boobu ñu mën koo kii mais fi mu ne nii problème bi urgence bi mooy bu feer bi la fi mu ne nag urgence bi loolu waaw conséquence yi après dinañ bu taxaw fii waaw loolu mooy urgence te képp koo xam ne ni nga ko waxee gis na lu mel noonu na gaawantu wax ko ñu def li ñuy def parce que comme ni nga waxee léegi su lawee rek musiba day am waaw su lawee moom euh, maanaam su mun na rek naan si ñoom Sénégal mu jeex. waaw je suis pas alarmiste damay damay joxe juste benn benn cas c'est pas le cas du tout benn cas loolu gis fa la yem mais damay wax juste hypothèse boo xam ne c'est c'est la. waay moo tax nit ñi ku gis dara lu ñu ni mel da ko war a signaler comme ni nga ko waxee vétérinaire bu la njëkk jege wala association agriculteur yi ñu relever ko waa ala booy ñëw ci lay analyse su ko defee ñu mën a xam lu xew. voilà docteur Amadou Gueye yu pour pour compléter impact yoo xam ne kii euh, échelle yu rëy yooyu du amee par exemple si ay yenn réew impact environnemental ak sécurité par rapport a la sécurité alimentaire naka lay demee yooyu. voilà ci sécurité alimentaire boobu euh, docteur Diouf commencé di wax ci lay complété moom nga ma posé waat xam nga euh, réew ñun du ju politique mais kii tamit du politique fonctionnaire xam nga fonctionnaire moom. Euh, mën nañ jàpp ne du politique dafay doxal liñ ko sant donc dañu ne obligation la pour ñun ñiy liggéey ci affaire ginaar que ñu mën a fexe Sénégal yépp ñu lekk ginaar bu sell te doy doy nga mën koo gis fu la jige mais nga mën koo jënd léegi nag état bi 2005 bu mu nee day tëj frontières yi mu wooñu ñu ñëw ñu ne ah waaw feebar bi ngeen di ragal kat ginaar mën na ko fee indi ginaar buy dund wala nen bu jóge bitim réew wala lii ak lii yéen ngeen ne pour xeex feebar ba pour aar dëkk bi nañ tëj frontière yi waaw ñun bu ñu tëjee frontière yi ndax di ngeen produire ginaar bu doy ak nen bu doy pour sénégalais yi mën koo lekk nga xam ni sénégalais bi bu importation kiis duggatul ah mais sénégalais faa mu lekk ginaar ñu ne leen waaw donc obligation la pour ñun. ñu produire suffisamment de poulet suffisamment def pour que sénégalais yi mën koo lekk ba mu doy yaakaar naa ne fi mu nekk nii capacité maanaam li ñu installé ci ay poulailler Sénégal bu doyul tamit léegi mu àgg fa mais damay bañ a péremptoire mais yaakaar naa ni sax ni li Sénégal yi bëgg mën nañ ko produire léegi nag loolu doyul dañu ne comme ñun dañu nekk ci environnement boo xam ni le risque n'est pas zéro mënuñu maîtriser lépp ñu ne su feebar bi duggee na ngeen fexe ñi ci war a yënguti yëpp yënguti ngeen gaaw arrêté ko bala moo law parce que li ñuy bañ mooy mu law ba neen manqué mu law ba ginaar manqué parce que feebar boo xam ne dafay rey ginaar yi rey bu metti euh, docteur ji wax na ko foo fekk euh, ju ni ginaar nga rey genn wàll gi wala lépp tuuti genn wàll gi loolu feebar boobu mën na rey ginaar te sax kooku dafa am chance dafa am mesure biologique mais mënoon na ëpp loolu mënoon na ko yées tamit waaye li ñu bëgg daal mooy feebar bi na yem foofu parce que li ñuy bañ mooy sécurité alimentaire boobu ngay wax ñu àgg fa te jàpp naa ni bu ñu yàlla dimbali nga xam ni fi mu nekk nii kat gisuñu ko feneen laboratoire yi vétérinaire ñu ngi gëstu su yemee foofu duñu sa xalaat loolu mais suñu liggéey yépp mooy ñu àgg ci feebar bi bañ a law ba nen di manqué wala gënaat di manqué te jàpp naa ni nag bu ñu yàlla dimbalee daal ñu ngi ci yoon bi donc suñu xel dal na waaye nag du ñu toog de ñu ngi taxaw tem pour feebar bañ a law pour que mu yem foofu pour que nen am nen bu doy ginaar am ginaar bu doy pour Sénégal yi. ñàkkum lekkum ginaar wala nen rek lu mu mën def si askan bi. waaw bu dee lekk ginaar moom xam nga ginaar protéine la protéine dañu jàpp ne euh, docteur Diouf bi mooy jiite chaque anne dafay dajale statistiques yi dégg nga sànq mu ni la ci kanam tuuti mu ngi ciy liggéey dina la génneel statistiques yi chaque année dañuy regrouper. ñaata ginaar lañ produit Sénégal ñaata nañ lañ produit Sénégal parce que ginaar mooy protéine bi gën a yomb ci njëg tey jii nii boo demoon marché di jënd kilo même ginaar bi ko jëndee muy dund boo ko peesee nga ramené ko au nga rapporté ko yàpp xar wala yàpp nag kilo yàpp ginaar moo gën a yomb donc mooy protéine bi gën a yomb nen tamit noonu donc ñun devoir la pour Sénégal yi lekk ginaar bu yomb euh, protéine bu yomb xam nga boo nee protéine bu yomb Sénégal yi duñ ci def attention mais gi nga boo jëndee ginaar. nga rey ko ba pare nga suqi ko nga butti ko nga peese ko nga ne ginaar bi ka sama ganaar bi un kilo huit la wala deux kilo wala un kilo cinq nga diviser ko prix bi moo gën a yomb boo jënd yàpp nag oui mais léegi dafa commencé nag cher c' est ça le c' est problème léegi. waaw cher tëj nañu yi gën na bare nen yi gën na bare mais liñ si yaakaaroon bu njëkk ba poulet Brésil bi yaa ngi ko daan jënd si marché bi 1 kilo 500 à 1500 mais léegi ganaar gi moom dafa gën cher te pourtant gars yi ñoo ngi tëj c' est ça le drame également. waaw parenthèse par rapport ak kii bi. gën a cher bi c' relatif en général période fête bi la prix di jóg te xam nga lu ñàkk rek prix bi dafay jóg Sénégal moo bindoo noonu. xam nga comme ñun quatre vingt quinze wala quatre vingt douze pour cent de musulmans lañu korite ñëpp bëgg a lekk ndoo ginaar ginaar bu xawee raar tuuti rek loolu sax gën nañu dal waaye fête bu ñëwee ñëpp bëgg na lekk ginaar prix day jóg mais nañu jàpp ne cher bi ñun xam nga lan laa bëgg ñu nga laaj ginaar bi nga jënd deux mille cinq cent na nga ramener prix bi au kilo nga xool kilo yàpp lu muy jar. nga doog dafa cher parce que sénégalais bi du def rapport boobu ñun du ñu calculer ginaar bi ginaar bi nga rey. ramener ko au kilo bu dee 1,5 la nga diviser prix par 1,5 lam lay jox nga comme méngale ko kilo yàpp xar wala yàpp nag di nga xam ne yàpp ginaar moo gën a cher ba tey yi ma lay wax nii yàpp kilo yàpp ginaar àggagul sax bay romb kilo yàpp xar wala yàpp nag donc nañ jàpp ne moo gën a yomb Sénégal yi nag amuñ tàmmuñ jënd ginaar au kilo. waaye daal ñoom ginaar gi ci boppam. ginaar gi ci boppam et puis mu jege leen biir kër gi. yomb yëpp yombee xam tax yokk boobu te lu ko andi. Euh, le lee coûts de production comme Sénégal liy dem ci ginaar lu ci bari dañ koy importer xam nga tey jii nii li ñuy utiliser ci mboq dafa bari lool même si suñu mbokk yi ñu ngi leen di ñaax ci ñu bay mboq mais tey bu fekkee da nga importer mboq mboq marché international la bu fekkee da nga importer soja soja marché international la donc marché boobu boo comparé marché soja kilo soja wala kilo mboq 90 wala mille ak tey xam nga différence bi yokku boobu sax ñun duñ ko répercuter mais loolu rek moo tax ngeen di gis. prix bi di yokku. waa dafay cher waaw mais xam nga kii dem marché nag moom toujours dafa jàpp ni lépp dafa cher mais ñun dañuy jàpp ne euh, dafa cher par rapport ak quoi ndax yàpp xar a gën a yomb ndax yàpp nag a gën a yomb ba léegi nii daal boo demee li may wax nii nag mën nga ko gëstu. mën nga dem ci marché bi li nga wax kañ moom xam nañ ko loolu moom. dañu miin ganaar gi rek muy nekk kër gi yenn saa yi ñu yaral sax suñu bopp. ba def lu ñu ngi liggéey ci lépp nag gis nga docteur Makhtar Diouf su amoon jot dina la wax li état bi di def. ah Makhtar Diouf Gane tuuti sax Pape bëgg naa poser question Brésil xam nga mën nañu fa jaay ganaar à euh, bul foofu daa foofu affaire maïs. waaw loolu nag. Ah, voilà c'est euh, liggéey boo xam ne léegi tëjal nañ leen seen dëkk ñu daal ni kenn dootu fi def dara. liggéey boobu boo xam ne c'est moom àgg foo xam ne tubaab fa kàlla mais. xam nga liggéey boobu nag sëñ Makhtar du vétérinaire rek ñoo koy réglé. table bi il faut ñu bari wër ko kii war a bay mboq kii war a bay leneen kiy importé ñun ñépp bu ñu toogee ñu ni naka la ñuy def ba li ñuy importé mu jóge biti réew nga xam ñu amuñu contrôle ci prix bi naka la ñuy def ba ñu koy bay suñu réew su ko defee loolu du loo xam ne dañ koy régler ci benn at politique à long terme la. docteur Guèye gars yi toujours maxtaar gi nii maxtaar miin ta li ngay wax table yooyu miin na ko. Mhm. yi toujours yu affaire bi yëpp ñoo ngi ko dëpp si maïs bi rek toog di te maïs bi dama nañ ko defar fii. rapidement. comme ni mu ci dafa am affaire yu bëri yu ci yu ci yu ci làqu làqu si gis nga jëlal leen boutique boo dem Dakar ñu ne la dem cent franc et pourtant soo demee ci tool ba plateau nen du weesu deux mille franc plateau nen baana baana bi koy jëri ci tool bi dugg yóbbu marché da ciy teg te li ñuy teg da gis nga ki ki ki nga xam ne mooy euh, produire nen bi plateau bi du ci am 600 francs du ko ci am. oui distribution gaz c'est toujours comme ça moom. te nag li mu jaaxal mooy nañu yéeg wàcc gars yi ñoom ci 100 francs la ñu koy mhm. rek plateau bi 3000 yenn saa yi plateau dañuy dem 1200 1400 ne la 3000 ci bitig ba kooku benn kii la beneen bi mooy am na dëkk yoo xam ne mënoo leen concurrence ndaxte matière première dafa yomb énergie bi gën koy mën. lu mel ne ay Brésil wala Algérie gën koy mën Algérie. énergie jarul fa mais le Maghreb sax Maghreb bii nu jege rek ay. Algérie Maroc ganaar jarul fa dara. waaw man yooyu ma jaaxal. donc ñoom dëkk yu mel ni Algérie euh, par exemple kii bi courant am na sax ñu doon kaf naan te yaakaar naa dëgg la bi ñu ne gis nga kilo kilo euh, ganaar. prix bi téeméer la te nit ñi jëndee tuuti bi téeméer fii yow donc balaa ngaa concurrencer kële fekk moom daane la ba pare ñoom nag ay dëkk yoo xam ne dañuy industrialiser trop ku mel ni États-Unis industrialiser industrialiser ba nga xam ne encore nag am na yoo xam ne mooy subventionné Union européenne day subventionné fortement mhm. producteur am na benn kilifa bu doon waxtaan nag mu ne ma gis nga 2016 euh, mu mu ne ma agriculteurs américains yi ils ont vingt huit xam nga vingt neuf milliards de mhm. dafa bëri Amérique moom ñu subventionné c' est extraordinaire. gis nga 2005 ni mu ko waxee bi état bi nag ah, damay tëj frontière yi waaye fi nga jëlee gannaaw industrie ñu taxaw producteur taxaw. ku nekk taxaw ñu ne on va relever le défi. effectivement oui. donc c' est l'une des boo xam ne lépp lu ñu kii mais malheureusement comme ni nga ko waxee matière première yi amuñu ko te aliment bi ñuy wax toujours 60 pour cent aliment bi 50 pour cent maïs mais bi euh, ñun maïs bi ñu produit fii day entrer en concurrence ak maïs bi xam ne moom lañuy utiliser ci alimentation animale donc loolu daal benn problème waaye tamit ni ko waxee man ni ko déglu sur la statistique bindee kilo ganaar 1700 francs CFA kilo ganaar kilo xar trois mille quatre cent trois mille cinq cent wala cinq donc euh, ala ku li xaari ganaar moo gën a yomb léegi nag ñu ngi def ay effort yenn saa yi dinaa gis ne société yi fi nekk nii ñu commencé wàññi tu euh, prix yu poussin yi ainsi de suite di dina dal maay daal gis nga maillon yi mooy intrant yi et aussi yi da nga jëndee kilo gis nga ganaar mën nañu am deux mille deux cent bi soo demee Tilène gars yi ñëw trois non te sax mën nga am gannaaw deux mille cinq cent mais on va avancer benn question bi mu la bëggoon euh, poser am na jamono euh, danga daan dégg euh, ministère du commerce am benn réunion nga gis lu mel ne élevage yónnee fa seen waaye du temps de Oumar Khayr Gueye Seck kooku moom xamoon naa loolu pour wax leen ni non non non non prix kii bi lu mu tuddati encore déedéet bu nu levee. bu ñu lebi gel bi ak yu demee noonu yooyu alors que amoon na ay lobby yu taxawoon pour ñu lebi bu baax a baax gel bi mais am na temps yoo xam ni nit ñi dañu puisque ganaar gi léegi prix bi mi ngi yokk rek mais boobu yéen ñu lebi gel bi comme ça poulet brésilien bi du dugaan lu koy am très moins cher en sachet rafet dekk ba dee te du passé ay 1500. xam nga xam nga lan problème moom importation bi. oui. gis nañ ko temps yi ci yenn produits yi mais pour le Brésil li daan jaay si marché yi mais kooku moom mënoon na ko maîtriser y avait tout ah non bu Brésil sax man laa yor. daan expliqué la am na ganaar yoo xam ne bu ko defee ay pondeuses yu gis ku am mu daal di kenn ku sant seen fii dem Brésil ko dafa kii ñoo di ko jaay parce que su demee sax wàññi ko koy may parce que ay pondeuses ay ay yu ñu réformer la xamatul nu mu koy def mu jox ko pour ñu ñëw mu ñëw def ko ci ay cartes yu di ko jaay beneen mooy ñun. Sénégal yi ñu ko waxee yaa wóor ne quatre vingt dix pour cent de musulmans xalaal la lekk ganaar yooyu doo xam du leen rey dañuy dugg ci ay kii rek ma daañu masse courant dagg bopp bi sukkandiku ko ci ay machine indi beneen bi mooy statut san statut sanitaire ganaar yooyu la xam di nga gis fenn ñu ne gis nga aviaire gaa waaj gaawtu

élevage yi nga xam ne ay élevage de reproducteurs contrôlés par l'État et tout nga jëlee fa ëf à côté doo nag bu ñuy lekk dañu ci man ñaari weer lañ maye yeneen yi nag gars yi dañu dañ koy jël rey ko virus bi nekk ci biir parce que virus bi soo ko congelé rek moom moom xa affaire baax. waaw mais du ñu kenn ko contrôlé fii xool ba pare dañu seet fee ñenn ñoo ko jaay ak yooyu yëpp tout ça ah mais kaw mais il faut le faire. ñun bi ñu ko ñu européen ñettee nañu waaw mais dañ ko ne ñu on a pas les moyens contrôler loolu yëpp parce que dafa ay laboratoire yooyu ko laaj dafa sophistiqué léegi. projet baa ngi. ah mais nu ko. baa ngi wut projet baa ngi nii financé leen ñu financé leen ñu ñu kii ko ci lañ leen di gis ñëwaatuñu de parce que ñoom am nañ laboratoire yooyu ay laboratoire yu cher la lépp lu dugg ci ganaar foog nga analyser ko échantillon par échantillon foo jëm xaalis bu ay milliards la. ah mais ngay jaay ka rek dëkk bi bari na milliards. milliards yooyu nag ñu nar a perte boo leen leneen autant ñu defar suñu ginaar ñu xam nañu fu kan moo ko produire. ndax docteur Guèye la ndax docteur Diouf la kan moo ko produire ñu ñu ko fii moo ñu ne euh, bismillah la wax. wóor na sukki ko wóor na. Ah, waaw waaw <laughs> compter wóor na bi ñuy wax bisimilah wax léegi euh, si seen affaire ganaar est-ce que seen ganaar yi nga xam ni moom la ñuy kii fii nekk na ganaar yoo xam ni moom tam ganaar yu wér la. waaw euh, xam nga li docteur Diouf di wax dama bëgg a ñëwaat ci frontières yi. ndax bu leen fàtte daaw jéeg rek amoon na fi problème ganaar fii Sénégal ah. waaw euh, dinaa ci ñëw xam nga le fait que état temps boobu jamono Abdoulaye Wade la woon mu ne damay tëj frontières yi loolu mesure sanitaire la. rapidement léegi nag xam naa temps bi. waaw mesure sanitaire la. jàpp naa ne loolu moo ñu aar ci feebar bi ba léegi mais bi ci topp mooy euh, ginaar yi ñuy rey fii Sénégal xam nga ñaari façon la xam nga Sénégal aada la. nga dem marché jënd ginaar buy dund rey ko sa kër loolu peut-être euh, ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi forme ay nit ginaar gi nit rey ci këram euh, li nga man rek mooy former ku jigéen di naka la koy reyee naka la koy suqee mais ñun Sénégal dafa am ay nit privé yu investir ci ay abattoir industriel ñoo xam ne dañuy appliquer procédure d'abattage bi ñun vétérinaires yi état privé bind di fa def di dem inspection abattoir boo ci gis am na vétérinaire boo xam ne mooy liggéey moom mais état day ñëw heure bu ko neexee contrôler donc abattoir industriel dafa am nu ñu reyee ginaar noonu la koy reyee. waaye nag koy waaw àggaleel euh, ni ñuy rey ginaar. Mhm. xam nga julit bi dafa laaj mu xam wala jullit yi sax ñoo ko bëgg xam naka la ñu rendee ginaar bi. Mhm. xam nga boo demee ci réew bu dul jullit machine mooy rendi ginaar bi c'est automatisé Sénégal suñu abattoir dañuy déedéet partie boobu mënuñu ko automatiser. déedéet ren di ginaar bi déedéet ñun ay jullit lañu duñ ko automatiser donc boo automatiser ba fa ginaar bi jaar ñëw ba ren di ko des déedéet jullit a koy def boo duggoon ci abattoir di nga gis jullit ku tudd Mamadou doolu ku tudd Babacar taxaw yor paakaam. waaw du ginaar bi agsi lu muy def. rendi ko. ni lan benn par benn wax bisimilaay mais xam nga boo waxee bisimilaay mën nga rendi ginaar yu bëri. yu bëri man du ma imam peut être docteur Matal ji mën nañ sori. li wóor daal nañ ko war a rendi bind nañ ko alal. ñun sax Sénégal duñ ko tuddee alal dañ ne wax jullit bi nii lay rendee xam nga alal sax boo ko waxee dalay lay génnee dëkk bi ñu dañuy jullit bi noonu lay war a ñu ne ku ciy jënd abattoir partie bi nga xam ne dañuy rend ginaar bi doo ko automatiser ñoom waxtaan bi ñoo koy contrôler c'est-à-dire ba ñuy rende ginaar bi dëkk yu bari loolu moo tax ñu mën a rey ginaar yu bari lu gaaw a gaaw a gaaw fii dañ ne boo automatiser boo ñëwee ba fa ñuy rendee nit a koy def nga doog automatiser la cay topp. loolu moo te ni kooku lu bari lay reyandoo nii. waaw non par benn benn. mais par benn benn. moom loolu moo man la loolu daf ñuy fitnaal parce que dafay yeexal suñu liggéey. léegi nag lu ñu war def bon. non amuñu pexe. ah waaw noonu. xam nga moo tax man daal man man la moo tax ñu ne man la dañuy. Ah, contrôler ah benn kii boo xam ne rek di ko defar. Ah, bisimilah en eh, continu eh, déedéet eh, xam <laughs> machine buy rey. jullit daf ne machine du rey. jullit yi xam nga loolu la ñu nag duñu euh, bokkuma ci aalim yi man en tout cas euh, mais daal sama métier daf ni ma euh, boo ñëwee ba ci loo xam ne dafa sensible du côté religieux da ngay dem waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. imam bi ñëw am na ay réunion yoo xam ne bañ ko amee dañ ne ah ñun jàng jànguñu nañu affaire vétérinaire waaye du ñu imam duñu ñu aalim même si am na ci ñu biir ñu mel ni docteur Matar Diouf mais ñu woo ñoon ñu ne ñu ah jullit ñi lay rendee ñu ne ñi ciy liggéey. du ginaar rek xar nag lépp lu ñuy rendi abattoir soo leen ñëwee ba ci poste de saignée poste de saignée mhm. dooli ko automatisé jullit mooy taxaw rey ko parce que bu jullit reyee ku dul te mën nga lekk nii la koy defee am na réew yoo xam ne boo fa demee du ki moom abattoir mooy déti déti di ki rendi boo def mel ni Nigéria mhm. imaamu quartier wala jullit ñoo naan diw mi mooy nekk ci abattoir bi moo ngeen jël par force parce que bindal nañ ko kayit mooy taxaw fa ñuy poste buy rendi mais duñu ne diw mi dañuy jox fukki nit yoo xam ne bu ñëwee nga tànn ci kenn pour que kooku tamit bañ leen bañ la bundu xataal ci affaire salaire mais daal li ma mën a wax mooy abattoir moderne am na Sénégal poste saigné mooy fi ñuy rendee kenn état moo ko mayewul kenn du ko automatisé danga koy rend ci ni jurit di wax su ko defee ginaar ba fay génn su ma nee nag euh, euh, dañ koy saytu jàpp leen ni dafa procédure yoo xam ne ñun ñoo ko bind teg mais état daf koy saytu li ñu jàpp daal mooy ñun dañu préféré ginaar yi ñu defaree Sénégal parce que docteur Matar Diop wax na ko sànq. man dama jàpp lu am solo la. Mhm. gis nga réew moo bokkulul aada. koo xam ni produire produire produire produire comme les États-Unis ñoom na bari na yomb te lu yomb la ñoom duñ ko lekk dañuy jël la baax bàyyi ko seen réew la nga xam ne bëgguñu ko nga xam ni tey dañ ko waroon sànni ñu ne Sénégalais wala Ivoirien wala Birina kaay ma la ko. muy waaw. jël dënd ba denc su ko defee ah waaw yow moom dafa mel ni xam nga li ma bëgg wax li nga ma ne gàttalal moo tax àgguma foofu mais boobu bàyyoon moom ci loolu lay xuus mais comme na nga ne gàttalal moo tax ma yem foofu. <laughs> jërëjëf man de soit si euh, docteur euh, Makhtar Diouf may fàttali ni que yow yaay directeur centre avicole euh, bu Mbaaw du benn unité industrielle quand même bu am solo si wàllu ganaar d'ailleurs ñooñu yàgg na sax di toog suñu ay. Euh, table gi dem noonu léegi nag dama bëggoon ñëw si beneen fan ndax euh, def naa xëy na war na deux ans am na feebar boo xam ne dafa duggoon Sénégal si ganaar yi ba sax sonn loon na ay yenn poulailler ba du ma tudd nag kii yi may am na benn unité industrielle bu mag boo xam ne dañuy sax ganaar go kii boobu maladie boobu jaaroon na fa ñu doon wax euh, Maroc la jóge woon kooku yéen amoon ngeen si firnde xalaat naka la demanoon très rapidement ñoo ngi bëgg pare. 2019 203 milliards de francs CFA la génn la dugal ci ci ci poche Sénégal yi filière. chiffre chiffre d'affaires waay. lu mot 50 mhm. ay industries ma ferme lu mot ñu ci liggéey donc gis nga importé ganaar bu ñu yàqal suñu loolu parce que y a une tissu industriel mu ngi mu ngi mu euh, ngi. te ñu ngi représenté ñu ngi ñu ngi ñu ngi vraiment delloo euh, ñu ngi remercier président Macky Sall ndaxte bi mu ñëwee benn mesure bu ñu ko wax mooy samay frontière du ma ko ubbi du ma ko def déglu filière bi. léegi pour feebar boobu nga la wax feebar boobu euh, defe naa Maroc bi lay wax. waaw Maroc moom laa wax donc Maroc euh, boobu jeex na épidémie jeex na jamono finalement jot nañ def ay réunion ñu circonscrire ko euh, dafa nañ ay ñi nga xam ne nag euh, bind woon nañu euh, président de la république jëloon na cent millions mooy xam nga soo fàttalikoo vingt trois juin wala vingt sept juin deux mille dix amoon na fi amoon na benn taw bu métti bu fi amoon mu am jur yu bëri yu deewoo mm-hmm. donc ci la joxe woon je pense ñu jël un jox ko ñu amoon nawet waaw donc euh, problème boobu mu ngi suñu gannaaw waaye dafa tax biñ ci jógee mu jàng jàng ci lu bëri daanaka feebar la boo xam ne yaakaaroon ne ne maîtrise nañ ko Sénégal ndax dañ ko doon waaye bu ñu feebaroo benn ñu bëri dafa tax ñu ñu gën a farlu ci vaccination bi ñu gën a euh, ñu gën ñu gën a yokk maanaam précaution yi doon jël ci feebar donc depuis boobu ci épisode bi ci lañ ko gëj a dégg. waaw mais nag comme je dis lu demee te mën la feebar daf leen di xuus ndànk ndànk ndànk chaque année am na fi am mais mosuñu woon am lu amee doon doole daf ñu bett. mais est-ce que foofu tam dafa am sàggan parce que du fekkee dafa am chaque année jékki jël ampleur bu rëy dafa mel ni sàggante moo ko lal. Euh, am na euh, tamit nañu waxante dëgg am na mais. du disponible agriculteurs yi non non yenn saa agriculteurs yi ñu ngi vacciné. Euh, ma jox la exemple exemple H H9 N2 euh, bi bi mu njëkkee ñëw Maroc ñëpp dañu wax bi comme feebar la ko wax ne sedd bi lay gën a sonk ñëw ci jamono tàngaay bi affaire bi xaw a bàyyi gars yi bàyyi vacciné lépp feebar bi yéeg fii tamit lu mel noonu xaw nañu dal daaw agri agriculteur toujours balaa muy fagaru rek mu sentir boppam en danger da ngay def ba yenn saa feebar rek ba ne luy ndaw nga tax nga jarul may vacciné waaye. suñ suñu bàyyee rek mais formation bi du kii na pour ñu xam ni même période bi dafa nekk période boo xam ne dafa wàññeeku saa veut pas dire que dafa dem. et que il faut continuer la régularité vaccination bi. ku yore ganaar day vacciné mari maa la xam nañ loolu. bon léegi mais beneen boo xam ni comme c'est assez important parce que am na ay jamono yoo xam ni da Newcastle dañu gisul moom te mu daal di jóg feebaru ganaaru réew mi nu ni dañu am temps boo xam ni danu wàññi woon xaw ma taux de vaccination bi wala sax vacciné wu na woon.

pas agriculture. pas agriculture industrielle agriculture rurale ci village yi. lu tax parce que ganaar yi souvent dañ koy sàggate xale yi koy toppatoo la jigéen ñi ganaar di dox ut lu mu lekk dem toog su maladie bi ñëwee soo demee Saalum dana naan euh, moom ndànk see ñooy ànd soo àndee bu wutu Toubacouta boor yooyu soo demee feneen ñu ne la mango yee koy indi déedéet c'est la période des grands vents ñu ne la épidémiologie jamono bi nga xam ne ci la gi di bëri. fin février mars avril feebar boobu lay lay c'est une maladie qui a une forte connotation saisonnière côté boobu noonu donc ci lay ñëw on pense ngelaw la koy indi wala tóortóoru mango yi la wala tóortóoru darkase yi la mais ay misaal la rek yu lay doon perte bi nga xam ñëw état bi mu ngi def ay ay kii mais vaccination ci boobu moom métti yasa da ngay ñëw ci benn village da ngay def kii da ngay ne tel jour dinañ ñëw vacciné mhm. waa ministère de wax leen ne dinañu vacciné mhm. nga ñëw fekk gars yi bëgg a da daw jàpp bi gën a jàpp bi gën a donc souvent muy gën a jafe ci ci comme ci. oui c'est un compliqué il y a des contraintes. voilà ci c'est un peu compliqué. moom moom indi taux boobu kenn faree fenn quoi. voilà defe naa foofu la yëf yi di jeexee ndax temps bi nu joxoon euh, jeex na ñu leen di gërëm bu baax a baax te jii ñi nga xam ne suñu invité euh, mooy docteur Makhtar Diouf di nekk euh, bu njiitu. Euh, centre avicole de Mbao di euh, remercier également euh, suñu beneen invité du docteur Amadou Gueye moom mi mooy coordonnateur comité technique bu interprofession bu avicole di également expert expert avicole si waxtaan bi mi ngi jublu woon rek tout simplement si li nga xam ni actuellement mooy affaire mbirum grippe aviaire bi nga xam ni pour la première fois mu daanu Sénégal ñoo ngi si liggéey bi def naa ñi jot déglu yëpp dégg nañ ko ñi nga xam tam également ñoo doon déglu émission bi ñoo ngi leen doon gërëm bu baax baax si seen teewaay Pape Laye moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen jettul seen émission waar yi ñu leen jox dox daje beneen àll bi incha allah jëf